di fàttalante di jàngale njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam am luñ mën a copier ci moom surtout ndaw ñi ba léegi li ëpp ci jullit ñi xamuñu kan mooy yonent bi li ëpp ci jullit ñi xamuñu kan mooy bi li ci ndaw ñi tam xamuñu kan mooy yontal Muhammad donte que bëgg nañu diine mais seen xam diine dafa des mbir nag loo ko bëgg bëgg bëgg soo ko xamul ba nga jariñu ci du yomb yàgg nañoo daje fii waxtaan ci yont bi jaar-jaaram ba ni ko yàlla yónnee tey dañoo bëgg a waxtaan ci jikko yi yont bi sallallahu ñu xool ñun lan lañ ci war a jëlee lu ñuy jariñ yàlla bi muy tagg rasulullaay taggu ko ci ndey taggu ko ci baay taggu ko ci askan te ko tagg ci jikko ju rafet jikko ju rafet jooju la mag ñépp copier ci moom di ko jàngale di ko tas ci àdduna bi ba tey ngëm yàlla tasaaroo nit xam yàlla xam lislaam xam alquran xam nu ñu tappe suñu borom loolu lépp yonti ñu ko jàngal ci jamono yi muy yi ko yàlla di yónni mu fekk réer gu tar ci àdduna bi waxuma rek mag waaye réer gu tar moo nekkoon ci àdduna bi ak jaayante doole ak kopp sama morom doole jàpp ko jaay ko dem lekk njëgam jamono yooyu la yàlla yónni rasulullaay ci makka yonent bi sala sallam ma bëgg su ma tuddee yonent bi na ngeen julli ci moom su ma tuddee yonent bi na ngeen wax sallallahu sallam ndax yonent bi sallam nee na ki gën a nay sama xeer mooy ko xam tudd nañ ma ci wetam te julliwul ci man kon suñ tuddee yonent bi nangeen ngeen julli ci moom may woné né xam ngeen rasulullah sallallahu alaihi wasallam te bis bu nek dafa am borom mboolem bis yépp nak ci l'islam ki mo tass bis yooyu yépp ki mo tax ñuy magal bis yépp muy magal ak gamok ak lu mënti doon rasulullah ko waral kon ki tax ñeem ki tax nit ñi di la tuddu ki tax nit ñi fonk la ki tax nit ñi xam la war nga xam kooku ban dimension la ban nit la yonent bi sallallahu alayhi jàngale na njàngale mu matale bàyyee ko jullit ñi borom xam-xam yi bind nañ ci moom nit yàlla yi bind nañ ci moom malgré que bind nañ ci moom waaye dem nañu rooti xam-xam ci moom ba xam-xam bi fees ñu di ko taatan di ko jox julli ñi kon dafa jaadu ñu xam dayo yonent bi xam dimension xam lan moy akam digam ak jullit ñi jiko yoy mu don jang jiko yoy su mborom tagge ci lañu wala copier ndax ñu mëna défaru nit bu ñëwee diw baxna du jëm ji mo bax ma jikko ji mo tax ñun diw baxna su diw ku bax la du jëm ji mo bax wa jikko ji mo tax ñun di baax na su ñëwee du jëm ji mo bon wa jikko ji mo tax kenn mënu jëflante ak mom dem na ba ci borom xam-xam ni ko samé xam-xam te amul jikko ju bax loo ko naw naw bis bu ngeen do do ko tuddati xam-xam limi tektele moy nga xam lan nan ngay jëflanteeg doomu aadama yi nga xam sa digënté ak sa borom lan mo ci war sa digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan mo ci war yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci liko yalla taggé moy ni la won ko xam ko lewet la du mer du gedd du jànni nit du tiel nit mer du mer du gedd du jànni nit du teel nit mer te nekku nit ku rëy yéen di nit ku modeste woon ku woyof ku simple jàngal na jullit ñi ni ñuy war a dundee jàngal nag yëpp ñi amee ñi nekk ci boppu diine ji ni ñuy war a dundee jàngal na bu jullit ñi ni ñu war a comporté waaye jàngal na nitu diine yi nen nañ war a mel sunu sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba jël ci moom jikko yi ba mu jeex takk Sëriñ Tuubaa dafa dafa jël jikko yent bi def ko ko mbubb sol ko di ko dunde ba tax na bëgg gi ñu bëgg rasulullah sallallahu alayhi fekkee ne xam nañu lan moo di bëgg il faut ñu topp sunnaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla def jamono ji ko yàlla yónni amul benn yonent bu mu bokkal jamono te yonent bu dul rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi la yàlla yónni am nga ko bokkal jamono yonent la Insa bi mu fii nekk mook Zakariya ñoo bokkoon jamono te Zakariya yonent la comme moom yontel Ibrahima bi mu fi nekk yontel Lóot ñoo bokkoon jamono te jarbaatam la yontel Souleymane bi muy dund moo ak yontel Daawud ñoo bokkoon jamono donte ko baayam la ñoo bokk di ay yonent yontel Moussa bi mu nekk jamono yon moo ko Haaroon ñoo bokk ñoo bokk jamono te ñoo bokk ndey ak baay waaye muy yonent kom moom kon ñu bokk mission bi ñuy def mennum Rasulullah sallallahu alayhi la yàlla yónni ci jamono joo xam ne amul kum ko bokkal ku dul rasulullahi salaam yàlla daf lay yónni ci xeetu wa nga bokk wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li kulli qawmin haadin xeetu wu nekk ut naa ku leen di gindi mennum rasulullahi salaam la yàlla yónni ci nit ak jinne mu koo fi bi yépp mission nekk mission bu matale boo xam ne à part mission Mouhamed beneen mission dutul ñëwaat l'islam di di ko folli diine ju fi mës a jaar ju ne diine ñëw na folli la ba mu des l'islam l'islam benn diine du ko folli ba yomal xiyam moo fi nekk mu am lu xew ci àdduna bi ñun ñëpp ñu dégg ko gis ko waaye li sëñ bi laxat waxoon ci benn tubaab li mu bindoon ci yoonu murit yàgg na nag xam naa ku mel ñoom Fallou Diouf nga xam jàng tubaab lañu danañ ko fàttali tubaab bi dafa bindoon ci journalam ne mouridisme exploitation l'homme pour l'homme yoonu murit yoonu naxante la fukkee liggéey di jox kenn muy lekk loolu la tubaab bi bindoon ci journal yàgg na boobu sëñ bi laxat moo fi nekk taalibe bari mer sëñ lax def déclaration ne sëriñ Serigne du ku ñuy xeexal du ku ñuy xulool ku ñuy lëggeel la ku ñuy yaakaar looy du ku ñuy xeexal ndax yoon yi bu doon xeexal xuloo ñun duñ ci jote bay doon ni murit am na ko bind ci sëñ Touba téere bu mag boobu sëñ Jaali moo fi nekk wax ne sëriñ bi ñim doon àndal du leen jàngal ba daf leen di liggéeyloo mais du leen jàngal diine tudd yeneen kilifa diine wane na ñoom ñooy jàngale diine ñooy yare mbir mi dem ba law ba ñu bari jot ci ñu commencé di ko bind di ko téléphoné di ko wax ju juunu mu dem sedd sëñ Saaliw xam naa kilifa gi téere bi man gis naa ko Sénégal def déclaration ne leen yoon du yoonu xeex ak bi fi ma bi fi señ bi nekkee mag ñi nak fi ya, la mbir mi gënono tar té mu sax mu su ko faje xeex ak xuloo lii nag njëmbatum la képp ku ko suxat su meññante mi ñor du la amal njariñ sëñ loolu la wax mbir ma fay caricature bi ñu kat di nettali yonent bi di ko dessiné ci anam bu ñaaw day tax rasul lay gën a yëkkatiku waaye munu yëkk lu tax war a naa lakka zikrak du du yonent ko wax de yàlla moo doon dina yor yonent bi dinaa la yëkkati ba àdduna sépp joobe la war a fax naa lakka zikrak am na ku wax laa ilaha illallah ci teg kon yàlla waxoon am na kon caricature yonent bi dafay gën a yëkkati darajaam day gën a yëkkati aw turam te Rasulullah képp ku ko joxoñ yaag yàlla la waaye du yaag moom yàlla moo ko ne asbukallaahu wa man tabihaka minal muminin dinaa la dimbale te nga doyloo ma yaag ñi nga àndal may seen garante dinaa la dimbale te dinaa la dimbale yaay not say noon ba yow man xem yaa leen di féete kaw loolu yow la waxoon na ko Iisaa Maryam na ko wa jaahilul lasin tabaxuuka fawqa lasina kafaru ila yawmil qiyaamat dinaa def ñi la gëm topp gën ñii la gën ñi la ñi la doomi ñi la gëm ñooy gën doomi ñi la gëmut siti ñi la topp ñooy gën siti ñi la toppul ba yawmil qiyaam loolu def rasulullah sallallahu julli ñi topp topp l'islam di ko pratiquer ñoo gën ñi topp l'islam ñun nak dañoo jël ci alal ngëneel lu alal de nit mana am alal ba noppi wala kana nit am alal ba noppi kana? kaana dañoo am ben vision alal lañ teg teg bët mais alal du pour dara yalla joxoko nit pour mu diko ko way da ko jox pour jumtu way la pour mën ci liggéeyal yalla wax na ci alxuraan na su fekkone nit ñi ma leen di may alal te duma leen di nattu dañuy dem ba àll ko parce que dañuy bew walaw basata allah rizqalihi badihi la baqa fil ardi alal wesul, ñaar ñi ma la bëgg limal qarun ak iram qarun moom Moussa ay doomi bàyyi lañu xaaroon alalam àggoon na ci ci Égypte day dem ci société commandé oto booy ba war fay xaalis bi génne kàttam ñu ne ko Égypte yaa ko moom juróom-ñaar fukki baax la ñoo doon sëf caay màngisinam juróom juróom-ñaar fukki baax la ñoo doon sëf caay màngisinam waaye fan la mujj xaaroon dafa dafa piégé Moussa jaxasoo ak banu israila musa mer ñaan yalla alkan ci mom musa rande bu julle fajar day taxaw ci minbar bi di warate xaron jël ben nak jigen xam jigenu jigéenu la ñu fay ko xaliss bu bari nak So su musa ñewé ba taxaw ci minbar bi di warate nga yëkkati sa loxo ñepp seen nga nak ni ma mel yaamu ni melal non la waxon non la piégé musa bi ndaw si ñëwee jóg bëgg a wax cëri paralysé au que mu wax li ko xaaroon san dafa wax safar ma ne Moussa yonent la nit ku dëggu la nit ku baax la xaaroon moom ma fay pour ma wax ne Moussa du yonent te xaaroon waxul dëgg Moussa yonent la Moussa la dagg xutba bi génn dajee ko xaaroon ci yoor yoor bi mu ne suuf si wannal ma ko fi saasi fi xaw tax la surux suuf si képp ko mu ne ko danga maa dangaa bëgg ma dee nga doon sama alal te fàtte ne Moussa moo ko ñaar ba mu am alal Moussa nag suuf si génn ko mu génn ko yonent Yàlla Moussa ñetti noonu la amoon ci Égypte ñu ko sonal mi Qaaruun Firawna ak Haamaan Qaaruun mi ko yàlla di alak su Moussa dafa dafa ne suñ borom xaroon lépp lu am ci kaw suuf na nga ko dajalee ba mu ba mu ba mu nekk benn place bu ànd ak moom dem xaaroon mu njëkk a maasale géej tabax ci pale ci Égypte maasale géej géej Égypte maasale ko tabax ci pale boo xam ne lépp a ngi ci biir palais bi palais bi amoon sa aéroport amoon na sa aéroport ci biir palais bi moo tax ma ne léegi nitu léegi ñun amuñu alal ñu am sutura mais amuñu alal xam nga kooku dem ba maasali géej tabax ci benn château gis nga wari moo ko njëkk tabax ci kaw suuf wari ak lii orange money xarum moo ko njëkk tabax ci kaw suuf day doog agsi si ñun nag mais amoon na bu yàgg xaaroon tabax pale bi tab maasali géej gi tabax ci benn pale ut parkilu oto oto alalem jëpp ubbi ay banque ci biir ci biir ci biir palais bi ay banque ay société ci biir pale bi gis nga ba lépp daje ba mu daje dañoo xëy bi sa géej gi wane lépp kenn gisatul kër gi xam kenn xamutul fu kër gi nekkoon ndax mu wane lépp noonu la xaaroon faatoo mu des Firawna ci la yàlla digal Moussa ne ko pour ma alak Firawna da ngay génn réew mi loolu moo tax Moussa gàddaay Égypte ñëw Jérusalem Firawna doon ko dabu ji nag bi mu koy dabu ji ñu dem ba nga xam ne léegi Moussa topp na guddi gi di dem ba fajar si xotti na daal di ànd ak soldaar yi di dabi Moussa fiñu taxawon ben eh, kenn ci so di Musa na ya Musa inna la mudrakun ke di ñew suñ kaw la jëm Firawna nga ne di ñu and ak soldaar yi Musa nako kala inna ma inna ma raba sa yax diini ne mo won legi fi ma jaar ba dem te kanam gi kanam mom geejje fi nekk ginnaaw Firawna mo fi nek Musa yëg ci kaw montagne bi jël yeeti mu yoon ko ci géej gi di bax di fuur di yëkkati ko jibril na ko julil ci yonent bi Moussa woon allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mu dóor yetu ci géej géej gi xar de fukki yoon ak ñaar ndox mi dem suuf si ñëw fukki giir ak ñaar yi mu ànd giir gu ci nag toppoo yoon ñu jéggi ba taxaw ci tefes gële Firawna agsi ak soldaar yi comme Moussa jàll na woo moom war naa mën a jàll ñu dem ba ci diggu geejju suñu borom ni Musa rocc yëkkati yati mu taxaw yëkkati ko mu yëkkati yati mu taxaw geej gi remplir fofu la nu duggé won fa la ndox mi tambalé suuf si dem ndox mi ñëw fi saasi si firaw na ñu andal àndal ñëpp ñuy tëmb di di tëmb di nan ci ndox mi ñi di dé di di ci kaw mu leen di gis fas yi ak ñëpp andi dé bam ba mom des xam lu mu wax La ilaha illa lasi amana bihi banu israila wa la ilaha illa la ilaha illa lasi amana banu israila sun borom nak fa qad xasen qablu li nga wax tay weddi won nga ko ba fi bu ñek kon nak tay ji fal yow najika bi badina gën la musal do nepp do dik jëndula lek do feew noonu la faatoo te gis nga ñooñu ñëpp beneen yàlla di alak koosu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo tax yàlla alak leen Moussa noonu la génne Égypte dem mujj dëkk Jérusalem fa la faatoo fa lañ ko denc même yonent Yàlla Insa nga xam ne moom mujj Rasulullah sar bi gën bi mu fi jógee la yonent bi doog ñëw te diggante Insa yonent bi six siècle dox na fi juróom benn téeméer dox na fi pour nga xam ndaw ñi bëgg nañu diiné lool mais xamuñu lu diiné jàkke fess mais xamuñu farté julli xamuñu sunna julli xamuñu mëndëb ci julli xamuñu nu ñuy jàppe xamuñu nu ñuy sangu set té diiné dafa laaj nga xam liñ di liñ wax tawhid ilahiyya Sëñ Tuubaa dafa ko jangal ci anam bu ne tawhid mooy nga xam ne yàlla kenn la amul ñaareel innama ilahukum ilahun wahidun sëñ Tuubaa ina ko ci masalik wax na ci masalik nee na xam-xam bi gën ci xam-xam mooy nga xam nu ñuy wéetale yàlla afdalu uloomi bi itlaaqi tawhid rabbina ala ittifaaqi wa baxdu tafsil qur'ani suma al adis qalahu daymani kan nahwi wal arudi wal bayani wa luqati wal mahani kon lislaam li ci jiitu mooy xam-xam xam-xam nag bi ci gën mooy bi xam bi ngay jëfe suñ juba jàngal nañu xam-xam lan mooy róolam jàngal nañu borom xam-xam bu sànku fan lay mujje sëñ Tuubaa nee na xam-xam jarul nawe nit nee na ku jàng ku ne di nga xam waaye li am solo may nga am xam-xam ma noppi di ko jëfe nee na borom xam-xam bu réeree safara moo koy gindi mu ne xam-xam fala ilmu illam yufti saxsan lil huda fa inna yajuru ila rada xam-xam bu la mënta jub lay alak xam-xam bu la mënta bax daf lay yak te gis nga borom xam-xam mu yakku kenn mënu ko gindi kul sawara kon bokkal ci jikko yu bax yi nga xam lañ ko këppee ci yonent bi am fonk am jikko ju bax jikko ju baax li ci jiitu ci nit mooy mu dëggu mu dëggu ci waxam ci jëfam ci jëflanteem doomu aadama ni mu dëggu ci waxam ak ci jëfam ak ci jëflanteem doomu aadama ndax dëgg moo yoonu aljanna fen moo yoonu sawara yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko sëñ Tuubaa leeral na ko ci nax ju dëgg moo yoonu aljanna fen moo yoonu sawara nit dina wax dëgg ba yàlla bind ci àllooy maxfuus ne kii ku dëggu la faaw ku di ko taxale doon nit dina fen ba yàlla bind ci àllooy maxfuus ne kii fenkat la faaw sawaral jëm mbokk na ci jikko yu baax yi nga xam ne laajoon nañ ko yonent bi yonent bi sa yonent bi salasam na ko jullit ñi am na ñu ci naan sàngara mu leen am na ñu ne ko jullit ñi am na ci mooy yàlla mun leen am na ñu ne ko jullit am na ñu ci fen mu ne dee képp koy fen bokkoo ci man kon war nañoo sàmmoonteeg jikko ju baax yonent bi wax benn addis boo xam ne addis bu gàtt la mais dafa matale lépp dafa ne kenn ci yéen ngëm yàllam du mat lu dul mu bëggal mbokkam li mu bëggal boppam gis nga wax jooju wax ju matale la laa yuminu ahadakum ata uhibbu li aqi ma yuhibbu nafsi kenn ci yéen du am du baax lu dul mu bëggal mbokkam li mbëggal boppam te nit soo ko defee comme sa bopp doo ko yàqal bokk na ci jàngoo joo xam ne ndey ŋàcc nit muy jeex te du feebar te du tëdd mooy kiñaan kiñaan li tax mu doy waar mboolem jàngoro kiñaan moo ci gën a garaaw kiñaan balaa yàq fa mu jëm fa mu jógalee njëkk yàq parce que li tax fa muy jógalee njëkk a yàq ki nga iñaane saa yoo xëy da ngay gis muy gën a yokk jëm ci kanam yow ngay dellu gannaaw te ki ci xol lay nekk ba tey sëñ bi tontu na ko ci Masaalikul Jinaan nee na ni ko iñaan su dëkkee waaju baax li mu koy yéene mooy alkande nga dëkka nit yàlla may ko teranga teranga malgré doo doo ko yéene mais da nga yéene mu xëy feebar feebar wax mu dutul wér moo tax mu ne istila xasuudu laysa san tifaahi fadama asabi tibaahi wala yasur man asmaani siwa alaaki bi la tawaani bokk na ci jàngoro joo xam ne day ngacc ngëm yàlla ba tey kiñaan day lekk ngëm yàlla ni safara lekk mat mi bu iñaan day dem ba xol bi ngëm duutu ci nekk jàngoro yooyu nga xam ne yonent bi sala noom dafa ko doon saafara julli ñi loolu lañu doon bañal mu jikko yu baax yi nga xam ne moom la yont bi amee woon ñu di ko copier ci moom gàmmu li ci am njariñ mooy ñu jàngale dund yont bi sallallahu alayhi wasallam jullit ñi roy roy ko bokk na ci nit ki soo bëggee am jàmm dangay ngay yéene nit ñi jàmm nit ñi boo leen yéene jàmm am jàmm soo leen yéene woon jàmm doo jàmm soo ko bëggee yàlla du ko def soo bëggee nit ñi am soo bëggee jàmm yow yéene ko nit ñi rek bokk na ci jullit buy ñaan na ñaanal jullitam yëpp bu mu ñaan yam ñaan yemale ko ci bopp na ñaanal mbokk jullitam yëpp donte nga xamu leen Serigne Touba war nañu exemple la bi muy tënk yaa rahmaan dafa ne ya malikal mulki ya man jallaan xawari irham jami a wara wara mooy yoru guur rek yaa ngi ci biir ñaan gi yàlla yàlla yow miy buur te buur buur yi yàlla nga yërëm lépp lu amug ruu kon waxul nit rek ya malikal mulki ya man jallaan xawari irham jami a wara yaa haari radaha yow mi nga xam ne yaa mën alkande yàlla nga yërëm mboolem lu yoru ruu kon nit waxalewuñ ko bokk na ci sëñ Tuubaa li mu am li ko may mooy xol bu rafet yéene nit ñi jàmm waaye yéene sëriñ ci tam ñu ñu tedd ba mu jël ñaan jagleel ko sëriñ ci spécial boo xam ne sëriñ ci képp la ko jagleel jamono bi bi bu yàggul ceddooy dañ daan lëkkaloog buur yi ñu toroxal sëriñ ci mona ne ñaan naa yàlla mu dag jeng bi nga xamne ne nañ ko l'islam jeng ko ci bi fa ka kabla xad ba sa fadla fa dur wala na fu jaay dakal la len lor ñoddi len jariñ kon dag na serum jeng kenn du toroxal serigne ci bi rew bari kon ku lek jeen ta xamoo mo bi ko nap lima jiblu wax moy bari ko am jam ta xamoo jam ji kan mo kan mo may sëñ Tuubaa dafa bëggoon réew mi bëgg jàmm réew mi yéen réew mi jàmm comme ni ko yonent bi ñaane woon ci Madina gis ngeen bi ko bii ko waa Taïf ba mu demee ci ñoom dañ ko booleeg ay dof ñu xaar ko ci ginnaaw dëkk ba mu génn ñu tab ko di ko xeere ba yaram yi nàcc bi yàlla yónnee malaaka mi yore wàllu yi daf ko ne sa borom na nga wax lan nga bëgg ci dëkk bi ma boole ñaari yi mën na ko déedéet jéggal leen te xam dañoo xamul ëllëg mën nañu am ay doom ñu topp li may woote te dañ koo xeere ba yaram wi nàcc en tant que rasulullah ci la jóge Taïf di ñibbi si julli jël mu dugg ci xur di julli benn koyu yu jinne bu mag génn ànd ak moom ci julli gi ci biir julli suñ borom wax yu ko kul ya illa ya ana sama nafarun min al-jinn fa qalu inna sami al-quran ajaban yahdi ila rusifa amana bihi bokna ci moji sa rasul sa don def moji sa karama du ben moji sa fek lo xamne mus ken xal na li manam lolou yonti dan def karam moy nit yalla def def ben mbir mo xamne du yeme la lo moy karama mais moji sa ñokay def yonent bi yàlla mayoon na ko lu yàlla bind soo ko nuyoo mu fay la ca langage bi nga nàmp lay wax ak yow rab mën a doon nag exemple day dox ba yem ci benn kéwél bu jigéen ñaari rëbb jàpp ko jàpp kéwél bi yeew ko yeew ko yeew ko séen ko mu ñew mu ne ko yaa rasulallah yow mi yàlla yónni waxal ma ñii japp nañ ma te xamna dañ jël yoon deuxième pour ma te xamuñu lima ma kër bay wax de mu ne ko am dom amu luma len nampalé ma génn di for ndax ma am luma lek pour mëna am meew ma sama samay doom ñu japp man te xamna la bëgg ray parce que xamuñu né dama bay ay dom ci xuru te ma ray sama doom dañ jirim ma bëggon nga garantie ma yow ñu baye ma dem nampal samay dom bañ suur ma ñew delu ci ñom yéen bi ne leen dégg ngeen li kéwél bi wax ñu ne ko kéwél bar mu ne ko kéwél bi ngeen téye dégg ngeen wax ñu kéelu ko kéwél mu ne ko li mu wax ak man laa leen tekk dafa dafa ne da ngeen ko jàpp te xam ne dangeen ko bëgg a rey te dafa am am doom ci xur wi bàyyi leen ci biir xur wi di for ndax mu am lu soow mu mu mën a doomam ngeen jàpp ko mu bëgg ma garanti ko mu dem nampale doom ba ba pare dellusiwaat ci yéen ñu ne ko kër moo ko doon mu ne loolu la ma doon wax ñu bàyyi kéwél mu dem nàmpali doom dellu siwaat na ko jéggal nañ kéwél nga sa barke yonent bi sallallahu alayhi dox na ci àll bi benn arab dañoo saay saay te xam nga arab dañoo bon te xam bon xam ni mën naa bon te du xam lu bon arab bi dañoo bon xam lu bon arab bi nag Muhammad sonal nga ñu yàlla nee na yàlla nee yàlla nee na mu romb ko dem mu génn yem ci benn mbëtt mu rey mbëtt mi denc ko ba ci ngoon mu wëlbatiku jël fe jël mbëtt mi ngàmb ci geen bi ñëw ba ci kanam yónni bi na ko yow nee ngi yàlla la yónni bu fekkee dëgg la mbëtt mi soo ko dekkalee mu gëm na yàlla la yónni mu sànni ko mbëtt mi yónni bi joxañ mbëtt mu wax ci bi mu bi mu dekkee waxu dafa yemu ci dekk dafa dekk ba noppi ne asyhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah Waji diko deg comme nim deg wax yont bi yont bi abu Jahl mas na ko def loo ma mo ci saa bu doy war. daf kané bala ma gem ne Yalla la yoni nga xar wer wi ñaar yoon Soko defé ma xamni Yalla la yoni. te abu Jahl bayila ci yont bi yonent bi taxaw ci montagne bii ñaani yàlla weer wi xar ñaari weer ñaari yoon benn bi tegu ci loxam benn bi taxaw ci ko montagne bi Abu Jahl ni ko gisee bëtam bi mu ko defee Abu Jahl xamulum ko lii njabar rek moo tax yàlla alak Abu Jahl alak alak ñaaw la dee bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo mu'jizaat yi mu daan def jëmmi riñaan riñaan bari na ko wax riñaan te xamoo lan mooy riñaan riñaan kenn musu ko def ci àdduna ku dul Muhammad kenn musu koo def ku dul Muhammad xam nga nu ma la ko mën a misaale mu ngeen leen président Amérique yow nga war a wutaa nga war a wut visa dem Amérique président Amérique yónni ambassade bi ne ko demal ma ci diw nga ne dam ko soxla jox sama avion avion bi indi ko kon lu nga wut visa ah loolu mooy riñaan yonent musa sakku sàkku na ci yàlla dama bëgg gis rabbi arini unzur ilayka su mbor na ko lan taraani sa jëmm mënumaa gis sa ruum mënu aleykum salaam sëñ bi mu sa man wa sa gis Musa insisté nako dama la bëgg gis suñu borom nako légui montagne mi nga jàkkaar lool xol ko dina ci waccé lér go xamna boko mo né boko mo né mënee boko mo boko mo xaj boko ko ma xam mën nga ma gis gis nga bi lér gi dalé ci kaw montagne montagne montagne ya fa tass nek pënd Musa dafa daanu xam xam lu moo fi xamle ko rabbi inni tubtu ilayka yalla ma nga tub sakku man sakku gis te moom moo sàkko woon a gis yàlla rasulullah sallallahu alayhi yàlla sàkku gisee ak moom werante am na ci ñii alxuraan saxal na wari ñaan gi saxal na ko moo tax am na benn borom xam-xam bu fi nekkoon jànkatu baa bu fi nekkoon nee na gis na yonent bi sallallahu alayhi mu demee ba Jérusalem mais gisuf mu yéegi ci kaw asamaan benn professeur boo xam ne mbokk faalu ci woon la jànkat tubaab la ma ne mbir mu nekk nañ koy jox ña ko moom xam-xam boo ci xóote bu ci sori xam-xam boo ci xóote bu ci sori yàlla confirmé man maa yónni maa woo rasulaay mu ñëw fekk si ma muy sut l'israil subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid haram ila al masjid aqsa allazi baarna hawlahu li nuuriya min ayatina innahu wasamul basir mu des nag yonent ndax gis na yàlla wala gisu ko yàlla waxaat ne war nañ mi saaxawa maa dalla saa wa kii du wax loo xam ne bànneex bakkanam moo tax muy wax yàlla confirme rasulullah gis na ma sëñ bi leer na ko ci mooy bu xadaxaa sa faxra min hina asra mbil gis mi jaxam bi def ci lu werante gis na suñ borom te yàlla sàkkoon gis rasulullah kon bokk na ci mujjisaat yi yonti doon def li nga xam ne yonte la insa médecine la woon dafa doon faj ñu tuddee ko Masih ibnu Maryam insa jàngoro joo am bu la laalee nga wér laal rek bu la ko defee nga wér boo silmaxaan même nga la fañ laal naan jógal nga dox nga jóg dox day jël ay loxoom teg ko sa kanam bu muree nga gis insa daan dekkal na daana dekkal ku dee insa dafa fekk day dox ci àll bi ànd ak ay nitam ay taalibe mooy xawaaru yoone ko toppoon ba gis ñetti ñu dee ci àll bi benn saaku wurus nekk seen diggante déegu yéeme kii daa tëdd ni kii tëdd ni kii tëdd saaku wurus nekk seen diggante bu fees dell mu laaj xawra ne ñi degu tu tumaranke gi ak ñi ni ñu lan moko war dana danaa laaj yàlla naa ñaan yalla mu dekkal len day ñewat ci kiñaan gi ma la waxon ne bala kiñaan li tax mu bon da yak fam joge dogal yak fam jëm nit ñi boo leen yow do am jam. ñom ñatt dañu andi di wuti liggey kii day taxal matt di jaay kii maçon la kii day gas ay kàmb ñu di ko fay ñoom ñett ñu ànd wuti liggéey ba yem ci saaku wurus bi for ko yenn ko di ko awante ba jub dëkk bi ñu xiif bi ñu xiifee ñu ne léegi nañ jël benn wurus dem jaay ko ci dëkk ba jënd luñ lekk léegi ñu jël wurus bi jox ko kenn mu dem ci dëkk ba jaayi ko bu jënd lu ñu ñoom ñaar ñi des ñu kompuloo ko ñu ne bu ñëwee nañu xeex ak moom ray ko saako bi des suñu diggante ñun ñaar gis nga gis nga kiñaan dugg na ndeke de kiñaan du jariñ borom léegi ñu d'accord ndeke moom tam bi mu jemee jën ci dëkk ba jënd lu ñu lekk dafa lekk ba suur lim leen indi moom mu def ci poson ah gis nga ni mu def gis nga gis nga ki ñaan gi moom mam demee ci dëkk ba dafa jaay wurus wi jënd lekk lekk ba suur li mu indi ñaar ñi mu def ci poson bu ñu ko lekkee dee mu moom bu dem ak saaku bi moom mu ñëw ba teg lekk gi rek ñu songo ko dóor ko mu dee biñ nga dóoree mu dee mu ne léegi nag yomb na ci ñun saako dina neex a séddoo ñu ñaar ñoo ko seq ñu lekk ba suur nag bi ñu lekkee ba suur ñam wi poson na ci nekk bi ñu ko lekkee bale ku nekk daa wul ku dee saako bi ni ñu ko fekkee woon noonu lañ ko bàyyiwaate instant bi mu leen dekkalee loolu lañ ko wax mais li mu bëggoon a xam mooy pour ñu xam déegu tumaranke gi lan moo lan moo ko waral ci ñoom mais gis nga kii mujisaat yooyu Insa doon def su moom dafa jox yonent bi mujisaat boo xam dafay continuer muy alquran alquran dafa superviser lépp te dara ko superviser dafa tiim lépp te dara du ko tiim alquran dafa tiim lépp dara ko tiim kon bokk na ci jikko ju baax yi nga xam ne war nañ koo roy yonent bi ku nekk jàpp sa mbokk comme sa bopp te muy dëgg ci yow ñun ñi yàlla nattu na li nattu la de lii may wax ni lii may def nattu la ak xalil ñang nattu la wax ñett la wax ñett la yow miy wax nga xam li nga wax dëgg la yàlla mi la bind xam ne li ngay wax dëgg la ki la xam xam ne li ngay wax dëgg la wax mu ñetti wax mu am importance yow mi wax nga gëm ne li ngay wax dëgg la yàlla mi la bind te umb dara ci yow xam ne li ngay wax dëgg la ñi la xam xam ne lii nga wax dëgg la boo gisee léegi média ni niñ tasaaroo warate yaa ngi warate guddeeg bëccëg te mbon ngaa ngi gën a law kon wax ji lu muy jariñ mag ñi bi ñuy wootee rajo amut télé amut internet amut ni ngeen la xaw maag amut te ñëpp wuy si nañ leen xam nga tax liñ doon def dañ koo gëm di ko dund su fekke da ngay jangal mbi te gëmoo dundo ko doo ko def ña ngi tak ña waxal so noppé ñu faté ko yastaghfuna minan nasi wala yastaxfu min nit ñi moom mën nga leen sëlëm way yalla mën nga leen a de waaye mënoo dafa dama jéggi nit ñi ak li ci seen loxo dem ci seen borom liggéeyal yalla bu nangul ma mu tagatal ma li am njëriñ indil ma fegal ma sen lor jawastu nas wa ma fi ay nas ila rabbi naas fa lama wasaltu ila rabbi naas axtar nafu nas wa kafana dur nas yalla jox ma nit ñek sen fegal ma sen lor sen duwaan ni ko topé nak ku nekk gaday sa askan ñëw dëkk ak mom moy dafa xam yalla. di xam la yalla dafa xam yalla di xam la yalla xam nga loolu mooy lan Basiru Mendy njaago la ay mbokkam njaago lañ musuñu xam luy diine ñu dem tey ba Basiru toog di waxtaan ci diine lu ko waral lan moo ko waral dajeeg waaju baax mu defar la ah loolu la Sëñ Tuubaa doon liggéey ci lislaam fekk askan woo xam ne kenn xamu leen kenn mu leen boole ci dara mu tàggat ci ñoom kenn def ko daaya gis nga li may wax ci wolof noonu laa ko mën a waxee ci njaago su ma doon làkk njaago da nga naan da nga naan dégguma wolof xoola kee njaago la kee toog kele toog kee toog borom chocolat lay njaago la ah yow doo joola olof nga dégg nga léegi li liggéey boobu parce que lay ñuy warate ci télé ak rajo yi ñaara leen tax a jóg daraja ak tur ak business danañ ko am fa la yem nag duñ mën a gindi kenn parce que li ñuy jàngale jàngale wuñ ko ngir yàlla te dama gis loo xam ne dafa rës bu njëkk da nga gis ndaje mel ni bu amee nga gis ku warantelu tuub dug ci l'islam léegi lolou dafa lol am setlu seetlu setlu len lol est-ce que lolou setlu ngeen ko da nga ran gis julli juma ñu julli ñoo ba imam bi ne dam ku bëgg dug ci l'islam léegi ñoo ñuy dug ci l'islam dañ cee def commercial da nga gis sax ku ñew ci dekk bi na tu tumuranke dem ci dekk ne man catholique la dama bëgg tuk mais booy tuub nak da ngay dak ibru Cuun nak dama bëgg tuub ibru Cuun dam yobul ak këram sang la indi la tubaab yemal présenté la ki dafa bëgg tuub bu ñu dajal bari ñu may ko yéré gis nga bu bu ñu demee parcelle ba ku nekk dem ibru du xamni fu mu dëkk commercial lañ ko def ñu ne nit ñi mën nga leen nakoy mënon nak yalla te loolu dama gis léegi dafa wàññi bu baax a baax dama daan def ku tuub ma ma présenté la dajale la alal mais léegi dama la ne njaagu bu bëgg a tuub da ngay ñëw kër ga duma la yóbbu fenn nga sangu watu wax baatu seede ñu ànd julli jeex na waaye da awma awma alal ju ma jox kenn benn njaago ñëw nañ seet ma ne fa ba nga dimbale ko la ah, siiw naa ci masala siiw ma ci xaalis masala moom siiw naa ci waaye siiw ma ci xaalis man du boroom xaalis ab donga ab donga damay jàngale kon fi may wàcce sama kàddu mooy nañ jël ji koy rafet yi yonent ti amee woon ñu di ko di jëfandikoo bi ci njëkk mooy nañu dëggu ci sunu wax ci sunu jëf ci sunu jëflante wax mooy nit ci lañ koy jàppe ci lañ koy bàyyee nit waxam ak jëf mu juyoo rek kooku du nit te nit su fekkee fen defu ko muy dara war nga ko ragal sëñ Tuubaa wax na ko ci naax ju alaykum bi sidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri wa inal birri yahdi ilal janna wa iyaakumul kasib fa innal kasib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal naar wala yaasu billah yéen dëgg moo yoonu aljanna fen moo yoonu sawara nañu fexe ba dëggu sunu wax ak suñu jëf këm képp ko ñu gis nañ la jàpp comme suñu bopp yéenal yéene yéene suñu bopp yéenal jàmm mooy tax ñu am jàmm lu waay am ci lu baax nañ ko ko yéene te ñaan yàlla mu yokk ko loolu mooy jikko ju baax sa mbokk ju ba amee teraanga da ko ko yéene ñaan yàlla teraanga ji jikko nekk njiglaay mu barkeel sa mbokk bu amee lu baax soo ko déggee ñaanal ko lu baax loolu nekk war muuram su ko nattu dalee na nga ko masaw ñaan yàlla tegg na tombi loolu mu jikko ju baax noonu la yonent bi doon dunde ci Makka noonu la doon dunde ci Médine kon nañu roy yonent bi ci jikko ju ko yàlla tàgge mu jikko ju baax te ñu fexe nangu dëgg suñu dëgg dale ñu nangu ne kii wax na ma dëgg bañ dëgg ci réy la bokk te ñu wattandiku nay nay baaxut jullit du nay yàlla tagg na ŋàññi na ñi nay tàgg na ñiy joxe seen al ci yoonu yàlla ngir yàlla Yalna fi yalla def jàmm rew mi yalla na fi yalla saxal jam. barab bi nga xamne bu waxtu joté fu nek way bayiko fa ñëw fi ku fi duggu ko yalla yàlla na yàlla faj saajo muy góor muy jigen yalla ndaw yalla yàlla na yàlla def ñu ay mag yalla tagata leen wërsek wo xam dañ mën ci rew mi liggel yalla jàmm suñu borom yalla na def dégg ak top lu ci joom ngeen jéggal mako assalamu alaykum warahmatullahi ngeen xam ni مولده معظم مبارك محترم tanzimu yanxatimu ala zawi taqaddumi day guddi gu ñu barkeel di guddi goo xamee ni màggal ko dana war ci képp koo xam ni da ngay boroomu jiitul ci bëgg a avancer jëm ca kanam kon màggal guddi yonante bi yow mi bëgg richesse na ngay màggal guddi yonante bi mbaa ngay fekkee fu ñu koy màggale loolu màggal la soxna si bëgg boroom kër sax te mu jafe ko nay màggal ci di ko ci fos ki bëgg soxna nay màggal ci di ko ci fos ndax sëñ Tuubaa ne day joxe avancement te yëkkat sa xaalis nag mbaa sa alal nag di ko def ci ñi nga xamee ni dañuy jàng mbaa ñuy waxtaan sëñ bee ko wax de man waxuma ko waaw fa kullu man anfaqa fi mawlidil musharafi مالا بغير صرف ولو بقدر الدرهم فانه كمن حضر يوم حنين والصبر ويوم بدر والنصر خير وراء المفاهيم. سنتي واقع كيف كفاب سب درم ما سالل اك نمان تول غاي لي ماكو ماغال رسول الله جوكو ني جان ما ني وقتان ما كي غام غاني كو مالا ديملي لي سي غان ني غاي تيرال سنتي واني مين غاني كو ديمان بدر كي ني ديم بدر ньо گن سي نيت يالله moo tax sëñ Touba doon xartu ngir bëgg ci ñoom bokk ci ñoom mu dem ba yàlla may ko loola may ko sax lu kawe loola mu ne shahida allahu bi annani wahidun min ahli badrin xaafa min al jaahil ñi deman badar yàlla jéggal na leen lu mën di def sa borom du leen bind bindal bàkkaar sëñ Touba ne boo màggalee guddi rasulullahi joxe ci sa dërëm nee na mel nga ni ko deman badar mel nga ni ko deman xa xunay ni ca demu rek di xool yonent bi xool nga naan kee na jam na kee kee da bi jamono ne wa nasar nee na ca da dimbali yor sa ngànnaay di xeex ak yéefari ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon gàmm boo ci demee boo munta jàng bu ñuy waxtaan baa ñuy tagg rasulullahi yëkkati sa di ko joxe ngir jëmee yàlla ngir nga bokk ak ñoom tuyaaba ja su fekkee amoo dara nag innamal a'maalu bi niyaati niyatul mu'mini xayrun min amali yéene julit te yene fañ koy fay moy nga def ba amato lo def la ca des ñu da ki re bu amoon dana joxe waye yor na ñaar fukki juuni ci sama poste ñu laaj addiya nga na ah na yene rek da ngay nax sa bopp wa kon dama sax da ngay yegg kon li ne ci poste yi rasulullahi dara jaama tax ñu jox leen waaye jox nako fi legi yalla fayal serigne bi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dafa am ñu ànd ak ñoom am ak comportement boo xam ne noonu la ñuy mel yàlla moo ko wax ci alxuraan. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثل في الإنجيل كالزرع نخرج شطه فآذر فاستخرج فاستوى على سوق يعجب زرع ليأخذ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما يالا نينا عند رسول الله نون لن فولن فك الشدة على الكفار dañuy soxor lool ci yéefar yi fuñ fekk ab yéefar attan koo faagaagal ndax lan moo tax muy bañ lislaam lan moo tax muy bañ alxuraan lan moo tax muy bañ saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax waa moo tax waa ji ko doon contar fan yi yaakaar naa dégg na loo xam ni jommi na saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Pape Touré mu baax waaye nee na ruhamaa u saya sëñ Bass Mbenn ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax njaagu sëriñ Touba ku rafet xam-xam nga ci man koo joxe ci am ci yéene barki borom Touba te doo waxee sa bakkan jëm yàlla rek tax ngay wax yéen yàlla guddal sa fan dañu wax ashadu azaban yowma alqiyamati aalimun laa yanfaullah bi ilmi ki gën a tar mbugal yowma alqiyama mooy borom xam-xam bo ni du xam-xamam ndax xam-xam bi boo ko xamee ci doo ko jëfee nag ka ximaarin yaxamul asfaara yaa ngi mel ni mbaa mu yenu ay téere aw yat rek moom macha allah li muy wax dugg na ko lool te xam nañ ci dara waaw rasulullah ñi ànd ak ñoom dañuy tar ci yéefar yi sëñ Tuubaa wax na ko léegi Seex Ibra jàng ko incha allah usudun ala al aada masabihu fi duja wa kullun shujaaun rasatil kufr yajizahu nee na gars yi ursóodun ay gaynde lañu alal daa ci noonu yàlla yi moo tax noonu yàlla wóorul de sëñ Tuubaa sax nee na boo noonu yàlla woon naa la ginnaaw di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di ne sëñ Musaa Kaa ko wax nee na meloy bàmbaa ngi waaju xamul na digloo te roy roy luy jikkoom moo xam boroomam di jox aji laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ te ku ko tooñ mu baal ngir boroomam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ko ko soof ku dul kuy mooy boroom noo man di mel boolee mooy yàlla rek neexatoo sëriñ Tuubaa wax kay mooy yàlla dafa dëdd suñu borom wa iyaasu billaahi kii mooy yàlla bu faatoo yomal xiyaam day silmaxa xaala rabbi li ma achatani ama waxat kuntu basira yow suñ borom man bi ma nekk ci àdduna dama doon gis ak sama ñaari bët tey nag lëndëm gi xawma fu muy jaar mu zalika atatka ayatuna fa nasita wa kadalika al yawma tunsa kiimaan yàlla yi daf la daan diggal ñu lay wax dëgg waaye daawoo ko nangu noonu nga doon fàtt yàlla nag ku tedd kaa ngoog de yan yàlla guddal fanam sa bi yàlla na nga yàgg ci jamono yàlla na nga yàgg ci jamono sama yaay daana la ñaanal téeméeri atak ak juróom fukk yàlla na nga ko am barke borom tuwaa seen bokk <coughs> yàlla ni kazalika atatka ayatuna kazalika yawma tunsa aaya yàlla yi ak wax dëgg yàlla yi buñ ko masaa di wax di ngeen di fàtte fàttelu moo tax ñuy fàtte leen tey ci ak leer moo tax ñu fàttali leen ci ab gis moo tax saabatu rasul ñi àndan ak rasulullahi dañoo nekkan ñoo xamee ni dañoo soxoran ji ñi nga xamee ni dañoo wedd yàlla mbaa ñi nga xam ni ci boppam dañoo moy yàlla waaye nag ruhamaahu baynahum seen diggante dañoo mel ni ay xar du ñuy bëggante dañuy soppante dañuy yéenante jàmm kenn ku ci nekk li nga bëggal sa bopp moom ngay bëggal sa morom mbaa lu ko raw alxuraan waxal na ko wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihum xasaasa da nga am lo bëgg lool sa mbokum julit dik bëgg ko nga atten koo koo jox muñ ngir jëmi yalla sa bay andan ak rasulullah non lañ melan ñi andan ak serigne touba tam ci jikko joju leen yoro waaw aja kay <coughs> aja bismilaay <coughs> اللهم صل على كل وكلمة كنا بيسكر إذا سنة بخدمة الماء سنة سخدمة العالم لو وفاك علمة كنا بلوحدة بداية بما يحب وخال لأردها أهل دار الكرم يرمك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا خصينا بالمنتهى المكرم جينا بالمسلم لزلتنا صلاة وسلام ما ابتدى كلها رمت من المكرمين جينا بالسلام مرنجا القلب الوجود يلا من جو إلى غير نبي فللا إلى أبو جبلا فتني وحسمي كنبي وسلم من يا ربي على ختام الأنبياء المشهدين الأسبياء ما من المحسنين كنبي وسلم يا ذا على رسول رحمته الأسباب سبب يقل كنبي وسلم من يا سمري على نبي محمد وعليه المدى وكل زيتان كنبي يا لما خابر في الدم من التالف في الدم وكذا تغزنا يا منير اللقمين كنبي سكخيار الربيع كالمنير العربي سكى سبيل التلبي طبيب اهل سقمي جنبي سري الله باب الهدى نعيم دمورنا نسال الرحمن باب الهدى والكرم جنبي وسلم من على الذي ذاك المكان والمدينة ذاك المجيء الخميس بسرطان وسرمي جنبي سري بالجمال يقول إلى الجنان من أمين يرمك سلي وسلم يا خليل على سراجك المثير وهو البصير والنصير بالنعم والنعم كن بساق رسول راته وسكر براته وسكر الفساته ذاك رسول من أمين كن بسلي وسلم سرمدا كمنايا قلبي يا أحمد وليكن بنعمه إذا بيدي جمي لما زايد وبعد نعمتي يا الكبائر بجمعي ولمني إذا بيدي يعمل لدي أبري أجل على المثبت صلي وسلم سرمدا على الذي خلق إله في ليلة الخطر لنا كما ديم ما سمع ليلة الماء سيدنا بيه كرام الكرمين شيني بي أنت سرير الكسرى لأني أولي ابترى نور أفضل الورى ربي عليه سلم يا مقام الصلاة لا تزول من آل وسب الأدوم مبيا جديد سبيل بلا عيد الأغلم يا مقام سلي وسلي من على من آسف دين الجلال خرنانا بالخلايا وتتقبل لنا شباب مولد معصم مباركا مكرم تسمى يا ناتم يا مكة تسمى بسنته سيد شاهدا يا بدر بخير وحمد بي فكل من انفق فيه مسلفا مالا بخير ولو بخير جرأنا كلمي فانه كمن خدا يوم امن ويوم بدر والنصر خير ولا مفائما كلمي فمن ياسر نبينا باب الهدايا خلا أصحاب الخلايا إن الإسلام المهدى كي ندي فكل من قد أدرى من أبنى الوحايا ما سمن مبصرا بشكر يقبل ما وصف في ربي النبي المهدى الزمان أبو عبد الأبرار وسواه نادر يا مقابي زخمنا ابن فان نزل لو نور ثم نور يقبل مبروها i Palmer Berry.

muhibbun mooy soppeeti yàlla misloo lay sowlanoo Serigne Touba nee na ku mel ni Seydina Mouhamed kenn dootu ko am najiyun Serigne Touba nee na mooy ki taxe xaribun Serigne Touba nee na mooy ki jege sunu borom zakirun Serigne Touba nee na mooy tuddkatu yàlla bi wa huwa shakirun Serigne Touba nee na Seydina Mouhamed mooy canta jawaadun Serigne Touba nee na ab tab la karimun Serigne Touba nee na Seydina Mouhamed ku bil makarim yi sunu Serigne Touba nee na mu moo naqiyun

xool yar bu bu tedd bi nekk ci moom mu jaaxal ko mu ne waaye lii warumaa jaaxal ndax addabani rabbi fa ahsana tahdibi yàlla mii borom jaam yi moo ma yar ba noppi rafet ak sama yarin man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa al habibu allazi la shakka anna lahu أبناء نال من ربه كل المرامات به نار ما نار أهل الفضل فضلهم ولم ينل مجدهم أهل الكرامات نساق خد الورى تران وأفضلهم لولاه لم يخلق الله ما الخيرات سيد دبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدون ورد موم يلا بدون بن كاي مجد لولاه لم يخلق الله ما الخيرات dix minutes rek mu dem nga ñëw jàng bari sant mënta ñàkk léegi julli jot sori tuuti sallallahu alayhi wa sallam nga xam na fu mu mën a nekk moo xam mu nekk Jolof moo xam mu nekk Mauritanie moo xam mu nekk Njaaréem fu mu mën a nekk nee na sama xasaay yi la yàlla di fekkee Seydina Muhammad ca Madinatul Munawwar di nga ko bégalee yu bashirugal baax yi te xatti karaamatan wa in kunta ala di madinati zanna yi moo tax xasida gi baa ima doon jàng léegi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dafa fonk yonente bi nga xam ne yonente bi mi ngi gane jamono ci fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm moo tax mu jël wa innaka la ala xuluqin azimin mu jël waaw gi def ci fukki bayt ak ñaar alif gi kazalika nun gi kazalika ba ci miim ga mujj ga ci malaktu bi rabbi muxjilil mawji wal yammi seyxul xadim cheikh ahmadou bamba xaadim rasul wulida muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii yowmi l isnaini fii chahri rabii al awali fii aamil fiili damay wax naan Serigne Touba jëlul yonent bi rek daf ko ci benn téere dafa jël dundam ba jeex moom yonent bi dafa jël dundam ba jeex mu def ko ci ay téré téré yu dul jeex so beugé xam dara ci gàddaay gi faaw nga jàng raaya qalbi lahu fi itab bi jismi takraaru li annahu lil huda wan nur jaraaru Serigne Touba wax nañu ba wax ñu ki wa Màkka jëron ngir mu top yonent bi khu surahata sirran kay yaji abihi wa an yakuna ajrun wa miqdaaru way bo beugé xam yonent bi moy kan jëmum nan la meloon faaw nga jàng jës bu Serigne Touba ne na xat zaata wasuti في الحد جالس السطتي ولم يكن بمفرتي ولم يكن بآدمي ولم يكن متهما ولم يكن مكلسما بل فاح كل من سمع من من لآدمي كان يطول كل من ما شاه في كل زمن سرين توبا نينا لو نيول نيول بو عند سيدنا محمد مو لي سوت ياندي بي تي دوخ day mel na kuy dugg ci ay ndax suuf si mooy wàcc ngir màggal ji moom di tedd ja sallallahu alayhi wa sallam bu yëkkatee tànkam rek suuf si day mel ni màbb كان يطول كل من ما شاء في كل زمن وكان واسيا العتن دن بدا ياتو واي بودان داو ري باي حقتاي يد حق بتبسمي دان مون مو صلى الله عليه وسلم وهو جليل الخلب كما قال كو لا بياده مشرب بحمره واهدب وانجل زرفني سيرن توبا نينا نيت لا وون كو ويخ waye we hayba dan ko ñaar ci ab xonkay sallallahu alayhi wasallam mari bëj da rafet neena beut ba la sey ñuul da ay ci kukk la sey weex egg ci tal wa anjalun zu rasami ak a rafetoon ab bind sallallahu alayhi wa sallam yaftaru fi asna tisaam kal barhi aw habil hamam wa dahkuhu yajdu zalaam ka fi zalami serigne touba ne leg leg mu re waye bu reetaanee day mel ay lamp projecteur yo tal ci bi lëndëm wa wajhu mu dawaru wa wa xamisun wa huwa bahirun asmaru murattilu takallumi léeg-léeg biy wax day bamtu wax ji ba saxaaba yi naan lay taxu sakata ak a mu noppi waaye nag su may daanale jox sama mag di baax Serigne Maguette Samb Serigne Touba moo donn yonent bi bàyyi ma da ngaa jàng léegi wax kaano yu jullihul amaam buy dox niir yi ñoo koy keral yaraa wara awa amaam yonent bi day gis kanamam di gis ginnaawam wa aynuhu kaanat tanaam bët bi mën naa gëmm di nelaw waaye wa xalbuhu lam yanami waaye xol ba du nelaw ndax yonent bi moo wax ne inna ayni tanaamaani wala yanaamu xalbi mën naa gëmm di nelaw waaye sama xol du nelaw loolu nag bàyyi Serigne Saliou Mbacke moo ko ci roy ndax moom moo wax ni nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu xalbi yudabbiru aayam turisul xikama Serigne Touba nee na daa am bés muy dox ci kër gi am ku ma gis muy ñelaw bay xalang mu mel ni ku tiit woolu sëriñ Masamba ni ko Masamba lii lu mu mu ni ko Mbàkke kii de day def loolu ñuy wax nelaw mu ne ak sàggan ba mu egg si fii mu ne ko Mbàkke kii dee daa bokk si ñi nga xam ne ñetti fan yi wees yaa leen doon liggéeyloo guddeeg bëccëg loolu moo ko jàpp ba muy nelaw sëriñ Masamba di xool ku tedd ba mu yàgg mu ne ko Mbàkke ku dul yow bu liggéeyee li kii liggéey faaw mu def ni kii def sëriñ Tuubaa ko dañ am nañu ñelaw waaye dañ koo dalul saa yu ñu fekkee ñu bañ Serigne Touba daawul gëmmu bët doom yu góor yi duñu gëmmu bët rawatina yu jigéen ñi daa am bés muy dox si njaareem fekk soxna Fatima ja taawam mel na kuy ñelaw sëriñ bi jël tànkam bi dëggu ko fii ni ko soxna si ana looy def. mu ne ko loolu ñuy wax sonn dañoo dapp ñu mu ne ko bu mu amati damaa bëgg bu ëllëgee yow mal xëyaam fu Fatima du buntu rasul taxaw di ràmm nga taxaw ci yor ga di ràmm tax. moom moo doon naa Muhammad dafa nekk gànnaar naar bu ñuy wax naajin ñëw bëgg koo faagaagal gaa yi jàpp ko Sëriñ Tuubaa ñu leen udrukuhu laa taqtulu allaa tuhibbuuna an yaxfira allaahu lakum bu leen ko rey xanaa bëgg leen yàlla yërëm leen loolu yonent bi la ci roy yonent bi daa nekk ca Madinatul Munawwara tëdd ci taatu garabu tàndarma gi di féexlu am ku ñuy wax don suur tiim ko yor jaasi bi yonent bi ne ne xafet mu ne ko tey kenn mënul dox sama digënté yow ba du la rey yonent bi ne ko di lox di lox ba jaas ja muy lox di lox ba jaas ja wadd loolu la Serigne Touba don ci mom ca gannaar keroog ba naa di ñëwee ca ngir bëggoon jël bakkanam ngir faagaagal ko seelu khadim si Ahmadou Bamba khadim Rasul yonent bi Serigne Touba bayiwul dara ci mom ba garabu ta ba garabu tanaba gamu taxaw di khutba garab gi dem ba maxe yonent bi dinañ ko puus indil ma geneen garab ngir ma taxaw ci di xutba daa taxaw di xutba ba mu yàgg daan ni saxaaba yi garab gee de ma daan war ci kawam mi ngi onk ngir bàyyi gi ma ko bàyyi indil leen ma ba mu jege ma ma teg ci sama loxo taxaw ci bu bees bii di xutba loolu la Serigne Touba di wax sa jës bu xaniina jizin xat ata wax na ko ca masiyaat wa jizon xat xanna min shawxin wa min asafin xaniina shakla sa jaa faqdu amwaati ñun ñëpp jug taxaw ca kaw wax Serigne Mountakha Al Bachir yàlla na fi yàgg te wér waaye Serigne Abdoul Aziz Abou Madiana yàlla na fi yàgg te wér bu ñu màggalee wala ñu gàmmu c'est grâce à Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul in uridu ila al islam mastata'tu فما توفيق الا بالله عليه توكلت والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته صلي وبارك عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم كوكا واخ يالنا غا غود فان نييب جولي تي يونتي بي غور جيجن اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه اللهم نكون يبوخ اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه

Moustapha Cheikh Bamba yàlla xusoor laamina maaxal laamina jee waxal foox laamina bina Cheikh Bamba yàlla

خوار خوار خوار آياتي الله لمن ما لمن فوق لمن النسائي عبد الله عبد الجلال عبد الجمال الخيرات قدما إسرائيل احترما سيدنا خير يلاه ليلة مولد خير خلق خاد رب خوار خوار خوار آياتي على soppi sidna Muhammad bay faati di tabbi aljannatu la loxo ca kaw la màggal Muhammad usulu la laam sëñ Bamba guddik fukk ak ñaar la yoneen ñëw ci àdduna ci weeri gàmmu bisub lis nay ni bisu fukk ak ñaar la yeneen ñëw ci àdduna ji ci weeri gàmmu bisu lis nay ni yàllaaw sayyiduna Muhammad sayyiduna Muhammad ku sopp Muhammad rasulullah eh, jógal taxaw nu màggal borom ba sàng ba ca Madina borom bari yar waar ba Muhammad rasulullah ana soppay Seydina Muhammad guddik fukk ñaar guddik fukk ñaar guddik fukk ñaar guddik fukk ñaar guddik fukk ak ñaar la yónneen ñëw ci àdduna ji ci weeri keroog ba soxna sa bis ba tollu saay nopp noppi def mawlid ba yàllaawu bu yàlla dal di yebal Mariama azatan xawaa saara sa ñuy si yàllaaw bu yàlla dal di yebal Mariama azatan xawaa ñuy ndokkee si yàllaaw kasaaka waarul wal wi daanu ñëpp di way jigéen ñi àjjana ñi ñay ndokkeel si yàllaaw bu yàlla daal di jabal jibriilu ak ña ko dar minal malaayki bi laxlaam yàllaaw ñu daal di jiin tabalay baatin ci piyaras ñu daal di jiin ñu daal di jiin tabalay baatin ci piyaras ñu daal di jiin tabalay baatin ci piyaras bilhamdi wal farxi wa taqsim yàllaaw معلما عن إبرز نامنة بشرى لأهل السماء والأرض يا الله سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد فني نمد محمد رسول الله نراس الدندبي مولي لك كرنب مصف بين العوالم wala taar yàllaaru seydina muhammad bu yàlla jiin kuy malaaka na dem ña lay ziyaare ña lay ndokkeel si yàllaaru waya tawlaaw abwaaba samaay maan waxtu nodd jot na moo tax waxtu nodd dafa jot ay ca ayza wal kurama نحييكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى مقدمتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن سرين أبو بن سرين بارمكة بن شيخ القديم أطال الله بقاءه وأمده بصحة وعافية وبارك كذلك في خطواته وأعانه لخدمة الإسلام والمسلمين وفي البداية سأتناول الحديث حول مولد النبي عليه وآله وسلم وكيف كان الشيخ الخديم يحيي به وفيك وكيف كان يحييه أرضا وفوائده وحسب تعاليمه أيها الإخوة الأعزاء كان الشيخ القديم يحب صلى الله عليه وسلم حبا شديدا يعجز اللسان عن وصفه وكذلك القلم عن تحريره وكتابته مصداقا لقوله جل سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فكان شيخ القديم يحيي مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوميا وأسبوعيا وشهريا وسنويا كما كان يخصص ستة أشهر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وستة أخرى لمدحه وفهو هذا العمل ومضمونه حبه المتناهي لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وقال الشيخ القديم بنفسه صلاة ستة بمدح ستة تأتيه بتة مع اتساء وهذا مما يؤكد مدى تقسيمه للسنة على قسمين قسم أو ستة أشهر فقط للصلاة عليه وستة أخرى لمدحه وإلى هذا منتهى العمل والاجتهاد في طاعة ربه سبحانه وتعالى حيث قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سو so قبل ذلك قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وكما قال الشيخ القديم أيضا من ضمن قصائده ومكتوباته ومؤلفاته ومصنفاته غنمت حب المصطفى وأكتفي بذلك فالمعطى كفافا يكتفي استخدم كلمة غنمت وغنمت كلمة غنية جدا وثمينة إذ أن صاحب الكلمة هو انتهى دومه وحبه لله جل سبحانه وتعالى وكذلك محمد قال غنمت أصبحت قد وجدت شيئا أعده غنيمة في ماذا في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم وذاك يكفيني أن أكون ناجحا في الدنيا والآخرة ثم أردف بعد ذلك قائلا غرقت في بحر محبة الرسول وأرتجي به الرضا والقبول كذلك استخدم كلمة الغرق معنى ذلك دخل في البحر ولا يستطيع الخروج إذا غرق في بحر محبة الرسول عليه وآله وسلم ويكتفي بذلك أو ويستعمل ذلك أو ويعتمد بذلك أن ينال رضا الله جل سبحانه وتعالى وقبوله فقط كما استخدم كلمة أخرى غنية أيضا في كلامه سكرت من خمر محبة النبي فلا أزال في الثناء بمطنع إنه لسكران في محبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات رائعة استخدمها شيخ الخديم في مطلع هذه الأبيات الرائعة ليشير محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه فيه حقيقية محبة النبي في سلف النبي في في في, في شيخ القديم حقيقية لا مجازا وليس مجازا لذلك يتناول الكلمات التي في الحقيقة يؤدي ويوفي غرضه في محبته صلى الله عليه وسلم وكان يقول أيضا شوقي وودي ومحبتي معا لمن, جلا لمن جلالا وجمالا جمعا آه، قال أيضا الشوق لي شوقي وودي جعلته في النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين شيئين مهمين هما الجمال والجلال جلله الله وعزمه وجلله وجمله فأدخل في قلبه حب هذا الرجل الذي جمع هذين الوصفين العظيمين وكان يقول أيضا من ضمن ما قال أيضا نعتمد على شيخ القديم لنتدارس كيف كان يحيي مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقوم به قال محت محبتي المختار سيدنا حب المغاني والأهلين والولد آه، قال أزال في محبتي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو المختار المصطفى وهو سيد الخلق آه، حبي للدنيا وما فيها ومن بين ذلك أولادي وأهلي وأسرتي ثم أشار إلى إلى ذلك إلى نقاط يؤكد كلامه السابق قال دمي وأهلي وأولادي الفداء له عبدا خديما له مذ كان لي سندا يعني قال أنني جعلت دمي وأهلي وأولادي الفداء أصبحوا فداء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون له عبدا أخدمه مذ كان لي سندا لما ولدت إلى اليوم لما ميزت الأمور واستطعت أن أفرق بين الأشياء بدأت في ذلك لأخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك جعلت له فداء أولادي ودمي كلهم وإلى هذا منتهى الحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحبني أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده وأسرته كلهم فأكده شيخ القديم من خلال آه، قصائده وفي طليعة الأبيات الراعية التي استخدمها وتكلم فيها كلام لا أحد يستطيع أن يرده وكان يقول أيضا ودي له وللرسول والصحاب عصمني وقاد لي نفع الصحاب إذا رأى نتائج ذلك في نفسه لما كان يمدح النبي ويستمر في مدحه أنه أصبح بعد ذلك معصوما من قبل الله سبحانه وتعالى لكونه كان صادقا وكان آه، محبا لإحياء مولد النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصل إلى حيث ما وصل الآن وأصبح الشمس في الدنيا ينير جميع البقاع وهذه وهذا دليل عظيم جدا على قبول الله جل سبحانه وتعالى أعمال الشيخ الخديم الذي آه، آه، أعان أعان الله جل سبحانه وتعالى أو نصره أو قام بخدمة رسول صلى الله عليه وآله وسلم وأذاق ألوانا من الأعذاب من أولئك الكفار أو السلاطين الذين كانوا يضايقوه وكانوا لا يحبون وجوده وكانوا يحاربونه ليلا ونهارا مع ذلك نجح ووصل إلى ما وصل إليه قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان يحب القرآن حبا شديدا لأنه نزل على خير البشر طيلة 23 وعشرين سنة كان يقول يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وكنت قبل طبيبي مدح الكتاب هذا المدح العظيم حيث جعل الكتاب شخصا واقفا أمامه يمدحه من الصباح إلى المساء لا إله إلا الله إنه لرجل عظيم جعل حياته كله آه، تطبيق كتاب الله سبحانه وتعالى في الأعمال في الأقوال كما كان يقول آه، صحاب أو كما كان يقول عائشة رضي الله عنه وقالت عائشة لما سئلت كيف كان خلق النبي قال كان خلقه القرآن ومن خلال أبيات الشيخ يمكن أن نتأكد منه أو منها أن شيخ القديم كان أيضا أخلاقه القرآن وكان شيمته كذلك القرآن وقال أيضا من ضمن ما كتب كما قلنا في البداية نتأكد من كل ما نقول من كتابات شيخ ليس بعيدا لأنه كتب كل شيء وتركه وراءه وعمل ما فيه الخير والصلاح للدنيا والآخرة حتى وصل إلى حيث ما وصل قال جعلت كتاب الله وردي وأبتغي بترتيله ما شئت إذا إسار لي أبا إذا هنا جعل كتاب الله آه، ما يقوم بورده بترتيله وبقراءته ليلا ونهارا حتى أصبح آه، هذا الكتاب القرآن في الحقيقة أصبح هذا الكتاب بالنسبة له أب الذي يقوده ويرشده ويبين له ويؤكد مدى قوته لدى ربه أو أمام ربه سبحانه وتعالى وقال أيضا من ضمن ما قال ربحي التلاوة والصلاة على النبي وكفيتني بهما أذى زلزلمين قال وجدت ربحا عظيما جدا أين وجدته من قراءة القرآن وتلاوته ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكفيتني يا صاحب الكتاب بهما أذى زلمين يعني الضرر الذي يمكن أن يأتي من الناس إليّ عصمتني بالكتاب أحطتني بالكتاب أعنتني بالكتاب هذه كلمات يستخدمه شيخ القديم دائما في مطلع قصائده المتميزة وكان يقول أيضا من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء هذا كلام واضح من يدعي أنه يحب النبي صلوات الله عليه وآله وسلم ولم يستفد من هدايته وإرشاداته فهذا جنون وفنون لا شك أن ليس فيها درجة ولا طائل من ورائه إذا شيخ القديم آه، جزاه الله عنا خيرا الله الله جل سبحانه وتعالى فصيح جنانه وبارك في أسرته وقد تم ذلك لاحظنا ذلك ورأيناه بأم أعيننا وقال أيضا فيما يخص بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فاق ربيع الأول الشهور بمولد الذي بدا مسهورا هذا كلام يعني أصبح ربيع الأول أفضل شهور وأشهرها لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر فقط فأصبحت أفضل الشهور فأصبح آه، أظهر السهور كونه فقط ولد فيه شيد الخلق محمد بن عبد الله وقال أيضا شهر رسول الله بهجة الشهور ورمضان شهر عتق وظهور قال من ما يمكن أن نعتمد عليه لنؤكد مدى كلامه وأعماله الجيدة الصالحة أن شهر رسول الله هو شهر ربيع الأول جمال وبهجة لجميع الشرور شهور كما هو رمضان شهر عتق وطهور كذلك نال درجة ما يقوله أو ما ما يشير إليه بأهمية شهر ربيع الأول كونه يحيي فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام طيلة أربعة تقريبا و أو ثلاثة وأربعين سنة حيث قال أحييت مولد النبي من أسس وانقاد لي فوق المنى في همسس قال أحييت مولد النبي من عام ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانين الموافق ألف وثلاثمائة وواحد وانقاد لي فوق المنى أعطاني الله جل سبحانه وتعالى ما كنت أهب إليه في همشس يعني في عام ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعين الموافق ألف وتسعمائة وستة وعشرين وستة وعشرين نعم إذا فترة تواجده مع الأتباع في جربل أو في جاريم هذه الفترة نال ما نال من مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم ارحل taalibe yi soppe ak xarit dëkkandoo noo ngi leen di nuyu di jiital sant borom bi subhaanahu ci xéewaluk may gim nu may ñu fekkee ci bisu soppeem bi ndawam lii خير المرسلين عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم دي أم بيت مريتي فك واركو دي با مولان دان واخ رك ام نانيو فك وون داو تيران فك وون ام نانيو فك وون daaw ren ñu fekk te mënuñ kon ñu sant buur bi te xam ne loolu yàlla kott képp dong moo ko man kon ñu sant yàlla subhaanahu wa taala te delloo ci moom di ko sant ci xéewalug lislaam bi nu may ak xéewal bi mu def ñu taalibay Sëriñ Tuubaa di daay murit te ñaan yàlla bala ñoo faatu ñu àgg ca murit saarix di wax ne ña dem ñàkk pexe ak ñàkk a muus ak ñàkk gàllaaj wala ñàkk fu la yóbbu leen ndogal borom bi rek moo agsi ñoom yóbbu leen yàlla yeex ñun ak yéen ñun ñi fi desit nag ay reen ak sunguf ak weexal yu bari ba wonu fi muus ba wonu fi ay rawaan yu aay ak xoddaam ba wunu fi mën a weexale ba wunu fi yeewu ba wunu fi bari xis boo ko coalition ak i déyante ba wunu fi dogal bu bi rekk ak seegut ñun kon nu koy sant ñaan ko mu gën koo sari ndax in ajallahi sa jaa laa yoo kon fukki weer ak ñaar bu ko nit dundee am na lu mu war a yëg anniversaire ni ñu koy defe fii xam naa ñaari daara yi bokkul ni koy defe ay daara jand jiit ak daara yi dañoo jaxasoo ñu yaroo ci daara yi nasaraan yi dañuy fecc ka tëb ka kontaan waaye sun daara ñun dañuy jàngi faat faatiha ak lixlaas ak jooy yu baree bari fukki weer ak ñaar wàññi ko na du ñëw loo ci defut du doo ko def nga ne da fecc gare bu doon téeméer la yàlla bindeel sax benn dem na te boobu moom loo ci defutoon jeex na mënoo koo dab dabaatal kon tiite moo tax jullit bi buy feete anniversaire baax na mu jàng alxuraan baax na mu sikkar baax na mu sarxe baax na baax na baax na yu baax yépp ci lislaam waaye tëgg ak fecc ak ree moom bu dee ci daara dañ koy tëgg yëfu def te mel na yëfu def lay nag lu wàññiku bu yokkoon sax nga ne waaw <laughs> bu yàlla yokkaloon ñaareel sax waroo cee fecc da war a jaamu yàlla waaye su wàññi benn at te xamoo la ca desum kon ñun nag bis bii ñu dajeel anniversaire la ci jaamu yàlla yi lu mu foor foor nag jàmm yàlla la nga tubaa ne naar yi dañ ne sëñ tubaa ñoom ñoo ko moom waaye dañ ci rëccu ndax jëriñoo wuñ ko parce que dañ koo jëloon di mu leen di fajal seen soxal rek ñu yem ca loola te moom nañ ëpp loola mu ne senegal nag ñoom xamuñ ko ñoom dañ ko yéem ba naa ko yàlla parce que dañoo jàngut malheureusement <laughs> waaye du yàlla nag waaye nag kéemaanu yàlla la waaye kon kii ñuy màggal bisam alayhi salaatu wasalaam moom du yàlla waaye lu yàlla bind moo ci gën te lim nu indil ci régler sunu problème yi àdduna ak àllaaxira keneen indiwu ko woon mhm. yonante yëpp dañ doon indi tuuti tuuti parti parti parti régler ñi commerce bi ñii sàmm gi ñi nàngam ñi nàngam ñi ñàngam ba gis nga seen siira bi mu demee ñu bari euh, boo jàngee seen siira xam ne mission ba lañ leen yàlla yónni woon lañ matal waaye ke yàlla yónni woon moom mu war a matal lépp bi mu ñëwee ba dem lu waaye waxati leneen sax ku fentaat biir sax da ngay dof fi nit àgg ci nit <laughs> maa ngi koy waxtaan ak sëriñ monsieur Oustaz Diallo léegi rek xam ne alxuraan boo koy jàng rek kéemtaan bi ci nekk rek moo tax woote jullit bi foofu rek la war a jógee nit ñi jàng alxuraan xam ko rek parce que nit ku nite boo xamee alxuraan ndax xam jarul tur nga ko wax kan mooy diine kan ma lislaam kan yonent parce que dina gis ne lii lu lu lu lu garaaw a nii waaw alxuraan da ngay jàng judd ci bañ juddoo ba rek ñu ngi ci te doo ko jekk doo ko man doo ko ñame <laughs> te bis bu ne nga ci gën a yéew te kooku ki ko indoon mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam euh, kon nag te li muy gàtt gàtt kat diine ji ji li muy gudd gudd alxuraan yii rek a ca nekk li téere bi bare bari bari soixante ici ci mille six cent soixante six aaya nangam nangam nangam yooyu yëpp ñuy wax sëñ Tuubaa nee ci dënk yi rekk ca ne te mooy euh, tarix li euh, ngeen di wax xarito tarix tubaab yi de wax fooy durut bi ñu war a jaar mooy ban nee na sëñ bi neen yii seen jaar faan amrun digle wa nahyun ak tere wa wax dun wa wax yi dun jeex na ñeent ponk donc digal yàlla yi tere yàlla yi digal yi ku ko def yow mu jësa yàlla fay la ko insha allahu rabbi ku ne ca teram ya la nga def it mu dencal la ko yow mu jësa mu fay la ko nga bokk ci asaabu sair wal yas billah waaxa yi dun waaxa yi dun dël yi ak digge ya mooy lam dig ci ku def lu baax ku gëm ne di nga dekki ba bis penc ñëpp teew ñu ragla la nga gëm ne boo defee lu baax yàlla dina la lu baax ndax yàlla gën a baax nga gëm ne boo defee safaan yàlla dina la delloo safaan booba ndax daa amut fu mu ko def ni mu waxoon mag ne ko boo defee lu baax ci ku baax boo ko defee lu baax dala koy delloo nga am lu baax boo ko defee lu lu lu bon dala koy delloo ndax amut fu mu lu bon boo defee ku bon lu bon mu delloo la ngeen ñaar ànd yéen ñaar ànd lu bon kon yàlla yàlla yoo xeet duñ ci lu baax def lu baax kii nag bi mu ñëwee alayhi salaatu wasalaam moo ne nit xamoon na baax kat maa ngi koy wax ne Sénégal ñun kenn force wuñu kenn geerut ak ñun kenn def ñu dara dañoo wax baax jullit ay murabitun yu doon jaay rek ñëw fi wax nu diine ji mu ànd ak sunu aada lool ñu nangu waaye kenn xeexutoon ñun nag ba gañ maam yi dëgër bopp amoon ñu gëm ku leen xeexutoon ñoom it da nga leen di rey waaye boo moytu doo bari lay jullit moo tax yonte bi alayhi salaatu wasalaam bii gën a baax yàlla ne ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati hasana parce que euh, laa tukri euh, afa tukrihu naas xatta takunu muminin kon diine ji du lu ñuy nit dañ la xamal nag dañ la xamal ci dal ak teggin kon yonente bi yàlla noonu la wootee woon di muñ di muñ di muñ ba yàlla na ko fayul mu fayul tuuti rek di jéggale waat yërmande ji na ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin euh, atte yépp nag mooy lislaam rawatina benn ponk janeer benn ba farxom fàttna ci ñi ciy waxtaan man ne ci janeer sëy sëy sëy muskila la te moo ne lislaam daf koo réglé lu tax munuñ dem ñun am kilifa tënku ci làmb suñ problème say yëpp rek ndax suur nisaay sa ustaas ak suur ahsaab loo ca teel rek sëy jeex na processus bi nag li ci mooy niñ koy takke léeg-léeg du baax niñ koy tase nag moo gën a bon moom ndax processus ni lislaam waxee ñuy tase suñu sëy yi ndax soo rek te laa xam na buñ ci doon jaar balaa sëy bee tas boo mooy tuut gaa màggat ñu ko seq wala <laughs> ngaa àgg ci fapasu wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha fi lislaam na jaar fa fépp bala nga faag boo muy tuut ngeen màggat ba ko pourtant maa ngi koy wax ne suñ dëkk bee Tuubaa sëy du neex waaye du tas ndax dañoo am kilifa fii nag moom sëy yi day gaaw a tas takk naa démb suba may ma baa sama nijaay nee na sama tonton naa la ah man na ku bëgg a tas du la jàppale ndax tey tax gàtt fal sama dund neexut waaye bis bu ne nga julli rek tudd yàlla jàng jës boog mu waxi mu xadd ba ak neex kenn du ma takk ñu ànd tas demal xam nga tasub sëy mooy dagg kóllëre ak yàlla aay bi ñuy takk sëy xamalu ca wax ña ngi koy jàng de mais duñ ko firi nit ñi duñ ko xam يا أيها الناس معنا أوصي بالله من سر الرجل يا يا الناس تقوا ربكم ليس هذا من نفس واحدة رجلين يلا من البلد بين بكر مي بين نت مي ما مع عالم ما ما أوصي وينه من نفس واحد وبس منهما رجالا كثيرا ونساء خم وكون بابا غور موران جنا باري gis nga nim changé ba jigen gëna bari waye lay problème du nakku wa taqullah allati tasalu bi wala ham in la kana alaykum raqiban jar na tiit yàlla nee na sëy bi ngeen takk ndax sëy mooy kóllëre gën a garaaw moo tax fecc ko daa seere lool yàlla na woon kóllëre ku ku ku ma fecc dinañ ma fecc de ñee <laughs> mu ne demal boo demee ku dagg rek ma dagg ko parce que gis nga sëy bu tase am na ko war force collective mën tam ci sëy am na ku ca topp di am na ko war ka war nag moo dagg kóllëre ga waliyaas billaay yàlla neen nag maa ngi leen doon surveiller parce que li nga def ba tas ndaw si ba war ko man yàlla xam naa ko ndaw si li nga def ba waaj wat la man xam naa ko inna laa kaana aleykum raxiban yàlla nga leen doon surveiller moo tax dansé dana torop takk ci jàkk ji ñett fan ñett waa may la xaalis nga nas nga dem tribunal tas di xaar keneen te pourtant ku war ku ne di nga wëri ki nga waroon maa ko wax yont beeg wax daal di te it yowmal khiyam garaaw na torop ngane yalla ya ma maa fecc woon kóllëre gi te kóllëre gi gën a garaaw kon nañ ci def ndànk ñun wajuri nañ ci def ndànk bo gisee sax suñu adab bax bi bayele muy ada l'islam parce que ki yoni yónni ali sallallahu alaihi wasallam ñun dane ko fo fek aada ju rafet ba ko fa naar yi ñuy dëng dëng amoon yu rafet yéen di ñu ko foo fekk bu ñaaw na dañ ñun Sénégal lim ñu fekkee aar yu rafet dafa bari motax tax lim ñu diire dañu wax sarti rek waye jomang ngor ak fulal kólle rek bu baax yoy yëpp sun maam dañ ko defoon taxamuñ ñuy diine kon l'islam daf ñoo wax rek ay ba daal duñ koy defé waye fekkon na ñoom jikko ma sha allah sun maam maam baax yoy waye fecc ci kóllëre ci sëy lay tambalé ndax ku mëna a xëy fecc kóllëre rek sa borom kër wala sa soxna parce que faaw am ko war moroom moom donte setan da ci liggey liggey bari parce que amo ben excuse yow da nga amul lay ndax budé sa soxna si dafa bona bona bon bon bonul ba ba melna na jabari yont yàlla luut ja amo lay di hein jabar jabarit yont yàlla luut àggoon na ci liwaat bi góor jigéen moo ko doon organisé biir kër yonte yàlla luut te luut xamul ci dara bi dafa kon koo wut yàllaa ko yónnee <laughs> pourtant bonum bonuk jabaram nga lu mu ko wàññi teewut yàlla ne ko innaa na juuka waaye kan ba jabar jene man mu ne ko ah ah waamra atam kaanal minal xaa déedéet damay joxe misaal jigéen ju bon ku nekk yontu yàlla bu baaxee na yoo ko yàlla yónni nga bon bay organiser góor jigéen ci biir këram ba yàlla ñëwee mbuugalam eh, yontu yàlla wut ne sama jabar yàlla na sa jabar kaana minal xaabiriin nag xamoo ko maa xam sa jabar bandi pire la moo doon organiser liwaat gi góor jigéen gii moo ko doon organiser kon kooku du gàcca <laughs> jabar ju du gàcca yàlla ko yónni waaye yow jigéen ji layit nag sama jëkkër dafa bon man ngaa am jëkkër ju gën a bon na pourtant doon na wax àgg na ci ana rabbukumal a'la ne xamaana defaral ma benn euh, stade wala monument wala taax bu kawe kawe parce que ma rey yàlla yi Muusaa ji nii la asunnuhu kooku gënt bew te pourtant yàlla moo tax maa ngi dégg kuy wax ne ki doon saaga sëñ bi sëñ bi du du doolu du ko koo saaga feebar ndax dafa baale ma ne ko déedéet sëñ bi bu baalee yàlla nanguwut ku ko def dara yàlla dafa yàkkamtiwut innama numli lahum liyazdaadu isman gis nga yow miy xëy ci njabar ak fan ak jaxaseeg naafeq di gën am xaalis di wér yàlla istidra da ngaa nekk ci innama numli lahum liyazdaadu isman yàlla dafa dafa yàkkamtiwut parce que yaay dox dem ci sa bàmmeel léegi nga dem ca sëñ Tuubaa nee na da nga ñëw te amul saafara yow miy waaxu yarawnahu ونراه قريبا كنت أبرلم يلا دانا تفاجو ولا فاجو دفا يا كم توت فرعون أبي وقت أنا ربون أهلا أكبيكو يلا على كارم تان لا تموت صوت صاحبي سبور سبور سام صوت سام مسكورف لوتينا كلي الله كم ساتي بدور راو ولا فني يلا نعم ده يلا بني لولو أكون بعدين قيس kenn mësul nag gis ku bon ba mel ne na te pourtant jabaru na ma nga dëgg ci biir pale ba nekk firaw na mu gën a bon bis bu ne mu ne yàlla rabbi ni nii indaka baytan fil janna wa najjini min Firawna wa amali wa najjini min axabi saalih sama jëkkër yu bon ji tudd Firawna mooy buur bi bis bu ma yëg may dee waaye yow rek laa gëm du yàlla day fan rek <laughs> musal ma ci moom ak kàccoor yi ko wër di ko jaay ba yàlla ne ko ah may naa la àjjana moo njëkk am kër àjjana jigéen ñi Seydina Asse kon kay sama jëkkër ju bandi du excuse te yonte bi alayhi salaatu wasalaam mii yàlla yónnoon te wa maa yantixu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa def leen yitte nag am na ko jóomal bëgg ne wa maa yantixu ne yantixu ah. <laughs> mosi bala di sëriñ jox sëriñ fotu xam na ko dee leen def yitte nag yéen ñi koy lijjanti mm-hmm. waaw wa maa yantixu moom la ñuy wax waaye boo nee ينتخو عن الهواء ما جارك بوكا دا جيمو سبام عرب دا فو كونترير لي بغون واخ غاي واخ عرب موم دا فا ودي وار وما ينتخو عن الهواء موي دو واخي بكانام لوم واخ يالا كو واخ بو ني ينتخو عن الهواء ماي بكانام لاي واخي ديو لين دفيت نك يي يعني نكوي بيندو ديكو كي آه، يو مودي دي دي نك دارج باراي صاح دا ني ام بروبليم بو تورن ني دا فا غراو واي غيس nga jëkkër ji ndax mënta bon baa ngi ci firaw na amee doole ne firaw na amee pouvoir ne firaw na kon mën ngaa jaamu yàlla boo amee sa ngëm-ngëm rek waaw léegi nag sa jaba jabat juman ji mënta bon ba mel na jabaari yont yàlla lool kon ngëmuñul ko te alayhi salaatu wasalaam dafa wax ab bu am solo nee na man sabara ngeen jàng ko bu baax ndax bu guddi yonte bi jàngale jikkoom ji rek ak li mu waxoon rek lay jariñ gannaaw ñaan jeeg yiñ ci xaas yuñ ci amee yooyu kenn xamu nu waaye Euh, baatin la baatin kenn du ko waxtaane mhm. nan ko gëm rek nag mhm. sëñ bi nee na ku fanaan ku ko fanaan màggale mel na ne ku judd woon amatoo bàkkaar mel na ko dem badar man dem xunay man nga nangam ko defub dërëm ko defal la yàpp yooyu yëpp am na solo waaye nañ jàngaat tuuti nag lim ñu wax ñu def ko pour mucc te yàlla suñu àdduna neex suñ àllaaxir neex gis nga sa wa ansalallahu sakinata ala rasuli yi mhm. wa alal muminine ku ko xañ sa yaa ko xañ yàlla nee na dund gu teey gu dal muy sakkin maa ko may yonente yi ak ñi leen gëm boo gëmee yàlla sa dund day neex day teey parce que doo rabax doo yàkkamti doo lebi bor ba doo nelaw doo fen doo tirian doo naafeq doo def dara da ngay dund xayaat sakiina xayaat tayiba parce que wax na ko sax beneen na kii mm, lan nu mm-hmm. yéen xayaat tayiba tan wan na siem bi asimakaan yax ma te booba min sakkarin un saa sax wax danay góor ña jigéen ñëpp ku ci gëm te jaamu yàlla naa la may dund gu tey gu neex ci àdduna tey it naa la fay jasaawul laa xam nga jasaawul aw faat yowmal xiyaam kenn xamul nu muy toll kon ñu def yitte ci euh, oto yi baax na xéwal yi baax na yi baax na waaye yitte yi bala ñoo àgg man koo jariñoo feet ngeen wax dara de sam parce que li ma bëgg a wax dafa garaaw te téléphone yu yi dañoo bari lool télé yu ndaw yi dina am ñu dégg sama benn xarit rahimahullahu alayhi xataali bi sañu ab fàll yooyu Moussa mu ne boo alal amo bànneex du ndimbal ciow yow <laughs> du waxi xalé di alxuraan la de xayaatan parce que alal boko amé nu amee nu baaxul nun koy dundé du neex ñepp ñeela te boo mënoo nelaw lu ko jar motax arab yi wax man man arada an yuallim annaas makarim al axlaaq fal yuhyi damairahum ku bëgg nit ñi xam luy jikko ju rafet makarim al axlaaq bi yonte bi ne woon innama bu'istu li utammima makarim al axlaaq beneen si xew bu'istu mutammiman makarim al axlaaq neen dañ maa yónni ngir ma mot li jikko yu rafet li ko yu rafet amoon na fi pour ma matal ko yonte bi alayhi salaatu wasalaam boobu bi moo wax ne du wax nee na man sabara te dafa jafe gis nga sarti diine bi yimaan jàllee nga xam ne mooy tax adhéré ba ca topp ci gën a foor mooy as sabru ku mënta muñ doo dem diine ji muñ moo ci yóbboo muñ nag mooy li metti muñ bànneexe ngir mën a jaamu yàlla ndax yàllay tere bakkan da koy bëgg saytaan dale ci xiir waaye amul njariñ ci nag yi muy digle yi nag saytaan dale ci tayel loo bakkan ci tayel waaye moo baax ci yow parce que boo tàmmoon julli nim neex boo julliwut sax da ngay waaw ndax dafa baax sa ruu dafa neex waaye yonte bi wax ci muñ boobu lu am solo ne man sabara ku muñ suu xulux sawjat yi ataullah ma ata ayub alayhi te ayub yontu bu garaw la yontu yàlla ayub ni'mal abdu innahu awwaabun yàlla kaana kaana nga jox innahu kaana la wax wajadnaa saabiran a ni maanaam innahu awaab laa wax man ah, kaana saabiran <laughs> alxuraan waaw maa ngi nuyu sëñ Samba Ndiaye nee na de moom da ngay reebo sonn fa mu lay mbas fa mu lay daaneel ak garaaw <laughs> nee boo ko mokkalee ah, ndeysaan yàlla yàlla may gudd boo mokkalee mel ne ku am gileem ba noppi yeew ko ci eh, cunkóor ak fas ah wax na dëgg ah, dafa ak jafe Euh, moo tax euh, hmm? mu ne ku muñ sa ñaaw jikko soxna yàlla dina la may la mayoon yont yàlla ayuba ayuba lu ko yàlla def ak lu mu ko yàlla may ayuba nekk na yonent nekk commerçant bi gën a riis nekk buur moom alal dëkk bi yilif waa dëkk bi seytaan fexeel ko ñëw yàqal ko alalam la njëkk a dem dem ca diur ga yàq ne sa borom nu dafa yow mu ne ko maa ngi koy sant ndax bu ko neexoon waaw ah, moom moom mu dem yàq alal ja ñëw ne ko ah sa borom mi ni mu la defar gis nga ko mu ne sant yàlla mu ne ko amatoo dara di yaa fi pon xaalis mu ne ko maa ngi sant yàlla mu dem teg ko na yàlla kii daal tëréw waaye am na benn affaire bu ko dese mu ne ko man mu ne ko dafa wér weng dafa wér kii bu wéree dee la wér di mu ne ko kàttanal naal demal def lu ko neex mu ñëw wal ko jàngoro joo xam ni yaram yi day def futt di di kii ba ba bañ mujj génne ko sànni si àll ndax bañ mu contaminé nit ñi ah Iblis ñëw soppi ko ne ko sa borom bii de ni la def tey moom di nga génn ci moom mu ne ah du ma moom. am am jaamam di ko jëfandikoo lu ko neex mu def ci. àgg na sax bu wadd sax mu jëlaat ko te ci kawam ne kii boo deewee dundam ci man la ko yàlla programme moom Iblis na ko ah, mu del ci yàlla na ko kii nag tëna ma yàlla ne ko innahu awwaabun ni'mal abd saabirun innahu sama jaam bi yàlla na ko neex ma bu koy arab waxee mooy c'est extraordinaire nit <laughs> waaye yàlla ne defal ko loolu waaye lu ca tege dañ koo génne woon sànni ko soxna yee ñam amoon ñëpp nag ba démissionné moo tax sa soxna fii yont nee na ku jël soxna teg si kaw sa kaw yaay lu compliqué li taax yi nag diggante sa soxna sa sa yaay ak sa sœur du sensible la moo tax kilifa di baax yont nee na ku jël sa soxna teg sa kaw yaay àjjana maa caabi doo fa dugg te ñu bari seen yaay ñooy seen cosma ñooy tax seen jabar yi ngeen baal ma ah nga am kilifa rek boo ñëwee xadaratul islah ñoom suñu saay gi jor ñu teg la ci yoon ñu defar rek nga am kilifa rek ba jaaxlee nag waxal ak mag mu lay yéene jàmm mu tegal kilifa ndax duutoo mën a dem yow solution amoo sa yaay sa jabar sa sœur garaaw na de doo ko réglé yow parce que sa yaay moom yàlla neen boo ko nee uuf mu génn si yow uuf loo koy wax kon nga naa ko meer bi dafa garaaw solution kon kon dafa garaaw dina ci am nag waaye yonent yàlla yëpp li ko yàlla defal jabaram yëpp abandon abandonné ko ndax su jabar bu mu la tax bàyyi say sœur bu mu la tax bàyyi sa yaay sa sœur du la mos a bañ sa yaay du la mos sa jabar nag da nga koo bëgg mu bëgg la yéen it benn affaire la <laughs> te da ngeen am pacte bu ngeen si waaye gis nga ñëpp nañ ko nag ba bés benn jabar bu baax moo koy indi lekk moom kot ci àll bañ ko sànni bis mu ñëw agsi rek fekk Ayyuba alayhi salaam doon waxambaane wu góor wu rafet taxaw mu ne jabar ji ne ko waaju baax man sama borom kër bu feebar moo te doon fii ma ko jot lekk gisoo ko fi ku ko soxla waxee taaj mu ne ko xanaa ayóobu la mu ne waaw mu ne ko ma xanaa maa ngi ni ndax su ne ko yow ayóobu mu ne ko ah waaw jëkkër ak borom këram yow laa xamee mu ne ko dag ma gëmul mu ne ko waaw mu ne ko lu ngi am lu mu génn mu ne ko am yow kay lii lii mu ne ko yàlla sax borom moo man lépp yàlla da koo defaat mu wéeraat bu noppi doonaat waxambaane wu góor tekkatil kon loolu yàlla nee na ku muñ sa ñaaw jikko jabar yàlla defal la boobu jaru ko doo xalaate noona parce que baadir yi ngay doon mais da ngay xalaat yalla kon numa ma dugg mën na ma caa génne comme ma ngi ñeul soxna si amna ci digeen ñu tang ñu def da ngay muñ ba bëgg rek nak té gis nga fam nekk nim mu sama sikus jabar si boo wax toujours ñak jom nga fofu la garaawee mom bu ko nexé wax di waye ko dem na sama jabar sama jabar ñu sama jor ya yaq dërëm té l'islam nee nga samal ko dara ah muñal ba nga ba da ngay muñ rek moo tax nag muñ yooyu yàlla nee na ku muñ ci làmmiñ bi ku muñ sa ñaaw jikko soxna ma jox la yal dina jox lam jox la yóbbu may ngay dem France ñu war laa refusé ñu bañ laa refusé nga am bëgg ñàkk ñu bëgg nga nangam nangam ñu bugg laa dàq yàlla ne muñ gi nangam nangam faaw yàlla defal la intervention rek sa àdduna te jar na ko te yàlla lu yonent bi wax dëgg la kon nañ mu muñal soxna yi rek bu dee feetu baa moom dañ fay nekk di kalang-kalang yi mag ñuy wax bañ màggat rek foo ko ba fii nag da ngeen a gaaw a toos <laughs> te gaawantu moom ñett rek a ci baax bor gaaw a fay waxi sëñ Tuubaa la ku faatu yàlla ni yeex ñun ñëpp ko ragal gaaw a suul ku faatu gaaw a miraas wala moo lëj yeneen yëpp nag samaratul adam samaratul ajal ustaas ad nadama réccu rek sëy moom boo gisee yidda sax fi mu nii l'islam baatin bi ñu bari duñ ko xam parce que yàlla xam ci nam mais saa si rek xam nga 4 mois ñu bëggante mënuñ koo meroo dañ leen damay chance ba tribunalu tribunalu euh, àddina yi sax boo demee dañ leen renvoyé renvoyé waat pour bëgg ngeen juba ah, parce que parce que mën naa am da ngeen meroon te te te mer nag ñeenti weer kenn mënu koo def <laughs> ah yonte bi nee na salaat ku mën a ku mën a mer ñetti fan bokkoo ci sëñ Blaat mi yàlla yónni woon ñun waxoon nañ ko rek mu metti ma waaye mer rek parce que maa jaaxal fi jëf fii quatre ko mer ah, sa xol bi ce que di mën na jullit si mer dafa garaaw de <laughs> bu leen mer Basiir bii ak a mën a nee na kuy mer doon a murit murit du mer ah kon ñun est-ce que ñu seet suñu mbir nañ dem piqûre waat parce que dañuy mer rek <laughs> waa merum ñeenti weer bëriwul it de ci ay chance la pour ngeen kii waat pour kii mag ña jóg wax mbokk yu baax yi wax wax defaral waaw kenn ki waaj ah maa juumoon kii nanga nanga mer ma yeex ñu defar ay chance la waaye procédure yu sëy moom ni mu koy lislaam tase buñ koroon doon topp sëy mën nañoo sauver yu baree bare ndax ay at lay jël kon daal maa ngi koy fàttali saa bopp ndax jamono boo jàkkaloo nit ñi leen wax ci ngir yàlla ma ne déglu ngir yàlla te nga yaakaar ne boo leen waxee am ku sax déggee ngir yàlla te nga yéene ngir yàlla nga ne wax rek lii ñuy dund jamono ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëwoon yuxrijunaa mina sulumaati sirk ila nuuril ibaada dañoo génne lënd mu ñàkk a xam di bokkaale ak zina nga naaw ah am na ko jabaram lakkal lam dem ca pettaayu sëriñ weexale ko bu ko waxtaanee mag mu tal ne baayam te baax mu teg ko yoon du ci weexale dara wala mu ñaan loo nit ku baax parce que it allahuma allif bay na xolo bi naa ngeen ñaan lu ci seen xol yi dëppale saytaane dàqu loolu lépp mu sañas na ko waaye weexalee cootaanjee ku ñuul gee ko defee ku xonq gee ku nga boole baakaar ak ñàkk si jabar boole baakaar ak ñàkk si jëkkër te dañuy fan rek nag fukki seetkat yi buñ la seetlee wax la fukki dëgg benn fanoo doy na baakaar day ndax day détourné sa àdduna xam naa xam boo xam ne yàlla na yàlla yërëm ko daal su ma seetlu ñu ne ko àll ngay faatu ñooy wut a gëm na ko di ndax ñu ngay bañ déggul ma jigéen ñëpp gën a dàq seet ñu la ku xonq kii ku ñuul kii ku kii kii nga ñëw fa sa tab sa say dem toog ah ndax ngay seetlu boo ko gëmee quarante jours boo gëmee moom da nga dafa garaw boo gëmul nag ñeent fukk guddi loo jun du nangu lu garaaw la ah waxuma sëriñ dara ndax ñu ngi koy publicité sax ñoon légalisé nañ ko mais ak lam discours nag dina bari njaaxum ñaay baax na la la la euh, Bob Marley la waxoon ak lii lu gën a garaaw légalise marijuana noonu la légalise seexre lu gën a garaw a ah, dama laaj mane ne asaluhum hal maanaam légaliser ya mbaax ak légaliser njabar bu ci gën a baax njabar moom da ngay gën diine tox yaa mba gënno diine nga ah, saay saay rek yon de ñu julli dina dina <laughs> suñu réew njabar a tas njabar ak xel mu rëy ak suuba cayni moo rekk tasre bi yante bel na allahuma inni a'udhu bika min suuba cayni yàlla yàlla musal ma ci borom ñaari kanam ni tey ñëw léegi cameraman noo tudd bu Cap TV sama mbokk yi ne la yàlla na gudd fal yàlla baax ci yow fekk bu génne yàlla nga dee mooy borom ñaari kanam moo tax kenn xamatul koy gëm kenn xamatul koy gëm di yow yante woon di ngeen dem ba sa loxo lay jot lu sa càmmoñ booy denc da ngay ree ba sonn secret boo wax nit yàkkam naa gis waaw kenn ba ne ko ay yënga diw nangam nangam moo tax ngay am da nga koy da nga koy wan na rek dugg ca wal kaasimiina al xays wal aafiina an naas nga consommé ko lekk ko mu rees yàlla defal la ko tuyaaba dañ lay weer donc yow gis nga diw jabaram ji moom la ñuy demee marché moom la ñuy demee garam place moom la ñuy kii léegi nag xam lu gën a garaaw tubaab bu jox leen moyen pour ñu jëfandikoo ko ñu ciy partagé ndax Sénégal moom ku yabu di def bàkkaar boo ñemee tuuti parce que loolu daf ñu partagé ko parce que bu dee bàkkaar bi un million de problème la nga partagé ko ci nii ngeen séddoo ko da ngay des bari di te ko partagé rek jël 10 pour cent moo tax ñi siiwut fii Sénégal mën nañu am ay chance yow man xiyam parce que li leen ton day bari te duñ ko mën a fay boo baree xaalis ñu ne euh, euh, euh, franc-maçon la xaw ma maçon xaw ma ah, waaye yàlla kon mënatu la may xaalis yàlla ma la may xaalis léegi boo am xaalis ñu ne franc امين باي جامر باي يبسط تخلي ما يسا يلا ما يورثك هو نيخ di xëy ri saab am na ku mën a xëy am milliardaire yàlla mën na ko di te moo ko di woon jaamam ñi walla yàlla man am nañu am milliardaire yoo xam ne wax yàlla nag dañu rafet njort nit ñi nag julli di bokk na àq bi nga ko yor rafet njort ci moom loolu ñaawañ mbort ne nag dafa noonu ay yoo xamut kenn xamu ko te man kat fekk naa fi jamono bi yàggul ku ñàkk xaalis ñu ne dañ lay tooñ ba nañ ko léegi léegi ku am xaalis ñu ne franc-maçon la léegi ñàkk xaalis ñu doon tooñ te am ñu am xaalis léegi anañu kon kay kon kay kenn tooñ leen woon dañoo amutoon xaalis kon ñàkk xaalis moo garaaw kon ñàkk xaalis moo garaaw waaye nag boo amee xaalis te amoo bànneexi day du ndimbal ci yow sëñ Moussa Ngom rahimahullah <laughs> taalib sëñ affaire falil dama waxoon loolu de kon daal biheen euh, biheen biheen bihin na jaatu wal falaa maa suuruur yow falaa yàlla defal ko guddi gi neex na Eh, yalla nañ yalla maynu ko mu ñëwaat ñëwaat fekkaat na fekkaat na fi buñ doon gam mo oustaz yi wax ba midi kan doyal ndax eh, majlasu shaada eh, waaw yalla dafa neex yalla dafa neex teer mom moy dundal ru yi te jamono ji nak dañ ko mar lool dañoo mar fu ñuy dundal suñu ru kon nañu faral di ñëw daara ji lu bare bare ma ngi daye kenn bi ko togn ne ko ya ngi ni sa tag sa teg nem la ñoré bo la ko daayira bi nga di nga tegg fi tegg fele digeen ni lay wax de duñ ko tardé seen carnet yooyu te carnet bi tudd tardé carnet kii bi moom daa araam moom bu ngeen teg di ko sib gi moom nga aw jël seen temps waaye carnet bi ngeen téye ceet moom ndaw tali moom daa araam moom man dafa araam moom rahimahullah warda an ha ndeysaan sayida sayida sayida Ayda Njaay Badaloo sama xarit la woon yal na yàlla yërëm ko pourtant pourtant seetluwu leen ko de mais ni na wax bàyyi faalu maam jaara yi bàyyi faalu maam jaara mu ne ma sëriñ Aziz man sama xaalis kenn du ko lekk maam jaara rek te wax dëgg daana may xaalis wax dëgg mu ne ndakaaru ku ma dama koy lekk te boo ma xew doo ma ko ñamee wax ma ne ko ah mu ne yii dañuy fontu rek <laughs> waaw kon terewuma ko nag waaye damay laabéere rek euh, pour ngeen mën cee jël fitna yu bari waaye bu dee fukki junni nga joxe ñaar fukki junni te boo ko defut kii moom daa araam mm-hmm. yaan yàlla musal leen musal nu suñu njaboot ngeen kon ñu tënk rek te mm, sant yenn mbokku taalibe yu ak njaboot ak wëllëre rek ak ñu jàpp ci bis yonte bi jàppoon ci màggal gi nag ndax génn yoo génn ci bisu sëriñ bi rek mm, bisu soppeem bi ñëw yàlla na ñëwaat ñëwaat diggante mu neex na nag ndeysaan min min mm, waaw ku amoon lu la neex saxaaba nu yaaban diggante boobu rek ak a neex rasulillahi xaadiru rasul waaw hmm? kon yàlla yàlla may nu ñaar yëpp màggal ga ñeew ca tax woon rawatina waa fédération bi ak ñëpp wëlër yi mënuñ leen fay mun mënuñ leen sant sëñ bi rek eh, moo leen mën a fay te mooy it moo seen fay te moom ku ko lebal rek nag ki ko jaaxal mooy nee na kii te bariwuñ ki nga xam ni ko yàlla daf neexu te ñooñ defe naa amuñ bariwuñ de sëñ bi laal bi ko waxee naa ñooñ bariwuñ waaye nee kuy wër àddina am na ko te doyu ko dara gaa ñi moom ay milliards rek lañ bëgg kon góorgóorlu leen te te te ubbi compte yi te liggéey sëñ Tuubaa am na ko bu dee ñu bëgg yàlla it àgg na ci yàlla fa yóbbu ku sax ci ndigale mi bàyyi tere mi jàng si rami léegi nga sori waa gutti yàlla raw sak maas bu dee leneen nga bëgg yiwug baax nag moom dalay fekk si rek daal du dugal ci boppam ndax moom daa baax dangay bokk ci moom kon mu ngi sant waa fédération ma Masson ak seen mbokk ak seen ak euh, suñuy wëlëree képp koo xam ni daal defoon nga ci màggal ga dara daal yaa xam li ñu seeq yàlla yàlla fay la fayal noonu te nga yàgg koo def te lañ ko def lépp yàlla rek a taxal sëñ bi euh, dinañ ca tudd fii la gën baaxe ndax màggal dañ ko xawoon na euh, kii ndax ni mu demee muy meeru dëkk bi fii Daawud Njaay mbaax na de yàlla yàlla may koy yiw taaj leen ma ko waay <laughs> eh, baax na de yéen may nañu xaalis de tuddoon nañ len waaw ndax euh, xale yi japp ne len wa dekk bi ndax itam ñun njaboot rek lañ am njaboot lañ am dama koy xaral wax ben ki mooy tax ne ma da ngay politique ma ku politique wul amut di <laughs> yonante bi mo fi dakk politique ali sallallahu salaam wasallam mom lañu roy politique baat li ngeen yaq ni rek politique gis nga ñun julit bañ gu gudd politique yi ñu def ku ñuy julit juma yante ne ngay jaar ne oo oh, ñu ko jaaraan ne te nga sañ sa sallu gën a rafet ñu ne ah ñi ñu ngi bari ñu ngi bari sikkat te pourtant dañoo am xaalis ñu ngi sañ sa si de loolu du politique waaye léegi moom jaratu ko léegi jaratu ko parce que am ñu xam ni am sama jàkka sama kër am ku ñëw ku ñett ñu ñëw ne ma sëñ bi da ngaa war a ubbee jàkka ji buntu fii ma ne hee hee seen fiq mille neuf cent boobu nag bu ba bañ ko yonente bi di ko wax ne jàkka da bu nee jigéen day am buntu Ah, kon nag jàkko juñ miire kon xanaa kon nag yaram booba at dëgg ma àggul foofu booba sàcc tàppee ki rajo amutoon te booba ko wàcc ci dëkk ba da ngay dem ca digg dëkk ba laa jàkka ndax néeg yàlla ke moomu ko ñu ubbi la nga fanaan fa ba suba ñu lijjanti léegi jàkk jan joo dem dañ koy tëj yóbbu kon koy kon tëj jàkk daa aram eh, nañ nañ seetaan dañu yokk nañ yokkaa liwé yi toll ne ko l'islam du kii day tolloog jamono jamono du ko dab sax waaw ah, kañ ñu bàyyi ko xel li ñuy suñ jëfandikoo àdduna yëpp nag buñ ci laajee rek man koo dëppaleeg jamono parce que am na yooyu yoo xam ni jamono mënatu ko ah ah jamono mënatu ko de tukki euh, du ma tukki àllarba ak du ma sang àllarba ak rendez-vous Macky Sall di nga sangu de avion bi bu dee def dem Italie euh, àllarba di nga tukki de <laughs> nañ def yitte tey jàng yi sëñ bi wax rek am na ñaan yi wax ne boo ko jàng mën ngaa dem ñu am yitte laajte ndax ma bàyyi loolu dara yent bi bàyyiwul dara a sant ñii é moonte te ma leen rus a wax ba ndax dafa metti <laughs> ana laa yoqaal falaat sakku maamay xaw xaw a ñoom ñoom daal lañ ñëw rek ne seen bopp soppay Abdou Aziz Abou Madiane wax naa leen mu wutal leen tur ñu ne lànk rek ne noonu la ñuy tudd la sama jëmuñ su xeebu ji ah ñom dal wax na ba soppay baye bo ñone ne soppay sëñ touba soppay sëñ ba soxna min bu ne pour ñu ne daal yow dal soppay Abdoulaye Sabo waaye kon mo tax sax dama koy laq diko wax ci hein ah yàlla yàlla yàlla yàlla sopp leen na dañu sopp Cheikh Abou Madiana xëy na xëy sëñ Baara Mamadou Lemi xëy sopp sëñ Tuubaa xëy sopp waaye mën na sopp na sopp na sopp na sopp waaw xëy lañ soppi waaye seen tudd ci kom taasub تيب دنگ همونو مگو فرفر لا نم فرفر لقو می نا فر نیت لقو می سامه فر من الله تیار من لگ مکم سونا خدی نم یونی نفی ترانگه چی بیس بی مول دو هم آسم ای بنی بری کم دو خاگی بری یون دو مانگ فی کن یک نیم کرگی یک نیم بیس بی یال یال فایل ملی نیو ترافن نه س سینسیاک چون بی maa ngi koy wax ma ne ko gis nga bu yàlla jëlee sa yaay yàlla yàlla may yaay yu baax soxna yi bu ngeen neexee suba suba ngeen baax yéen ñëpp ci gàmm ji naa bàyyi naa fable moo doon def ramba jaag wax yu sawee balaa ko baax naa tey yàlla moo ko bëgg gis nga rabiatul adawiya jigéen na woon di gis nga histoire jàng ngeen ko sax mi ngi koy def film demoon na ba àgg ci bu doon tey ñu ne waaw ndax seetlaayam kenn du ko ñemee tudd waaye bu jàngale bañul ko ñu ne gàncit kuy gàncitu caga nag mooy ku woon ba tas caga nga loolu mooy caga baat bi ci wolof bu dee kuy mooy yàlla ci jigéen juy ma yàlla mooy gànc an ah, kay fii wax de pourtant ci ci ci kër ñu baax ñi léeg-léeg nga gis fa ñu kii sëñ Tuubaa nee na baax àggul fépp bon nag moom àgg na fépp waaye àggu ci ñëpp dégg len ku bax de neena bon agna na way agut ñep digeen ñi bu len nexé suba suba ngeen bax te bu ngeen bax rek ñom ba yaxa tay bax ma la ko wax yeen leen a tax këpp kess yeen leen tax nangam yéen yeen leen tek fi nit rek sama sama borode ba sama ki ba sama ñaw ba sama wor ba sama kii billahi xaw ngeen no ray sarax leen nu te kat ñoo dem sa yeen ku ci xey dem marché togg Eh, bale maintenant seen yooyu xaw ma nu ngeen ayee rek nampal moom ko góor gu góor gu wasin bu soob yàlla euh, du ñaar moom <laughs> ah, da nga leen di yënd yàlla bilaay yàlla leen may yàlla leen par bu leen neexoon nag noonu lañ mën a baaxe bu ñu xëyoon rek ne doon naa rabiatu wala adawiya rabi demoon na ci ba doon prostitué waaw waaye dafa xëy jekki-jekki rek tuub dama dema dem ba nit ñëpp di ko ñaanloo yàlla ak ci yàlla parce dafa bëgg ku saytaan jàpp nga ne ko rëcc naa la inna kayda saytaan kaana da'ifan parce que mu ñàpp laa jàpp moom yombut ah suñ bi nee na mosuma def lu yàlla yi tere mosuma tooñ kenn nit bantub xalima sax bu maam moo dagoon mu sànni ko bu xam ne moom ko ko def waaye ah ndax yomb na ku nekk man ak yow a yow day gindi ci def lu baax dellu ci ay yow rek yaa <laughs> mu ngok kon nun ñepp nak du gàcce seytaan doon jàppoon aca nan tuub rek surtout jigen ni suba dal doon leen ay rabiatu ànd wi rabiya daana naafi la mu jigi junni rakka ma ngoy wax sama dom be legi sama jarba o mu sona khadino mané ko del def sallallahu alaihi wasallam junni aka yomb ci yeen te kat bo amé ak bo yep yante bi ak garaaw ci yéen di leen di yéege di leen defa di leen di raxas seen problème stress jigéen waroo stressé ndax nàmpal nax gone nax xale nax mag nax mag nax baayam kooku waroo stressé moo tax waxat na fii bóona ci ko na moo tax dee leen def sallallahu alayhi wa sallam salaatu ala nabi baax na ci yéen fus si dee leen ko jàng baax na ci yéen dee leen jàng dee leen jàng sindiidi soxna sëñ bee ko defaroon sindiidi defal ko soxna maam asawaalo mm-hmm. kon yeneen jàng yooyu te bu ngeen jéemee rek àgg kullu haamin wa antum bi alfi alfi xayri kon soxna Marème yaag soppay Abdoul Aziz Abo ñu ngi leen ñaanal jàmm yàlla ngeen am xéewal yàlla ngeen mucc yàlla ngeen barkel njaboot gay sëy yàlla nañ am am njaboot yu barkel ah, ñi amul borom kër yi yàlla am borom kër yu baax yu yiw yu leen attan te ñu am ca njaboot gu barkeel ji barke Seydil Wujud ah, di sant it ah, waaye wax naa ko daawul Njaay wax naa ko maire mm-hmm. yëmbal soxna xari ba wax naa ko waaw ah, kon de fii ustaas yi moo fi des si ñuy war sant waaye defe naa ustaas ba yi lay wax na waaw ustaas ñoom war yàlla ñooy sëriñ daara yi xam naa dinañ waxtaanaat sax gën a liggéey bi waaw ah, xamut ku waranteeru ñu seet nu ñu lay neexale ndax njàng mi maa def nañ ko yób dañ ko war a yóbbu université bàyyi gis naa ko de ñaar daal ñor na ma benn bi moom tàmbali naa ci ku ci bëgg a adhéré na nga ñëw seen liggéey be am na ko amee dara ci màggal bi ma fayee sama facture na yoon naa la may juróom fukki dërëm barkeelu ko ci kon ñi ci des nañ volontaire waaye fii ci kër gi yëg-yëg la nag te koy tàmbali nag te yàlla tax da ngay tàmbali nag xamoo loo cay fekk te xidma bi ci la nekk maa ngi koy wax waa xarit naa yaaram naa bi xidma lil muslimin ab rahma ñu suñ tubaa neen nag ñu may ñu xiir ci xiir ñu ci liggéeyal jullit yi diine ak liggéeyal jullit ñi ne te gis naa ne jamono laaj na ko ñu tàmbali ci ba yàlla may ñu ci liñ ci bëgg rek ñaari junne ngi nii dama bëgg ñu ubbi benn kees xaasatan ñi bëgg a faju mënuñoo faju ordonnance kese waaye balañ ko jox kenn dañu wóor ne da ngaa wéradi mënoo faju yàlla bu kenn wéradi sax bu ko defee kees koo gi naa waxtaan ak géw di ku ñu koy saytul ku ñu wóolu ñu dénk ko ko def naa ci ñaari junni ku am dara nan ko ci def bu ñëwee daayira demaas yéen ñëpp bu altine na ngeen seeti malaat yonte bi neen ñett baax na gunge néew seeti ko feebar te ñaanal ko ñaan loo ko ndax ko feebar du fàtte yàlla te yàlla ku ko fàttu loo wax mu def ko te bu fa waxtaanee dee nag kon bu altine na ñëpp seeti malade bu ñëwee sama kees gi ngeen jàppale ma ci ku amati ordonnance te ñu wóor na dëgg la danga cee néew doon lott ci ñu fajal la ko ci sutura ngir yàlla ak yonent bi kot ak lislaam loolaa dugg naa maa ngi leen di fay kilifa eh, eh. naa la ko dégg sax yow parce que <laughs> bari na ay waaw ñu seet nag dinaa waxtaan jëwri nu koy saytoo ndax mbirum xaalis moom dafa koo doy waar hmm, waaye dañ ko saytu ba jox ko ku nu wóolu ana sëñ Badara Gueye wóor na lool nag moo ko adel kër gi sax ñëpp wóor na wax dëgg fii moom wax dëgg yàlla ñu ko xanaa jot géeg yëf yi waaye nag saytu ga nag moom mooy mbir ma bëgguñu rek benn benn benn euh, kii ñëw ne damaa feebar maa kii naa nga déedéet du demee noonu de dañuy saytu ba xam ne kii yitte woo ko te lot na ci ñu jëndal ko ko sax yót ko bu jaree yóbbul ko faj ko waaw nii liggéey nag du ñàkk fayda ba di ko def àgg li taawu na alal biri wa taqwa du noonu la mboolum tudd kon kay dimbalante te jabar dugg yan yàlla defal ñu jàmm yan yàlla defal ñu tawfiix ñi ma doon sant defe naa ustaas si rek ma ci des ana kayit sa ko sama maam Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke sama sëriñ saw yoon du jub ko jule ëpp na ko mu ko waroon sant bu ñu ko sant ëpp na ko est-ce que yoroo ko bàyyi jibi njaay kayit bi ah? kayit bii de du bii de bàyyi jibi ngi mu xaddamut ci yàlla bu yaakaar Cheikh Sidi am ijaaba loola am ay ijaasa yu bare bari di mag di kilifa li ñu woote moo tax mu sopp ma ñëw gàmmoog man kon sëñ ji bi yàlla yàlla fay la yiw yàlla yàlla yokku maqaam yàlla yàq yokku ijaaba li nga bëgg tarixa cheikh ci naasireel xaq bil xaq eh, wasifa suba wasifa ngoon yàlla yàlla may na ci bëgg di la baax njaboot ji mel nañ la ñaan ñu ngi yal yàlla fay yal yiw yàlla yàlla fay xadara ba yal yàlla ko yiw sant naa baax oustaz Seyni Diallo moom itam bàyyi itam yëpp dama xoon xam naa ñàkk temps ak yàq iya yi ñëw ak dinañ ci boole sax nag maa ngi soxla jëwriñ yi ndax lekku liir suurut waxambaane suñ ko dañu màggate yëguñ ko moo war ngeen wut ñu nuy saytul gàmmu organisation bi des na trop te an nisaam nisfu diin diine jii yonte bi ni ñu ko wàccoon nee na genn wàll mooy organisé gis na bu di julli sàppe ni muy gis na ni ñuy kii nii du am problème loolu nag kon fii ke des na tuuti nañ wut ñu nuy saytu gàmmu gi tànt bi yeex naa pare yeex naa yëf yeex yeex ñëf na ana ndekk yi sax ak xéewal yi ana ndekk nañ ko génne bu fi demee des fii kay ñëpp war a li soxna war a ñoo indi woon am soxna awaag li soxna kon du ñoom li dégg ana yëpp nañ ko gën a jox jaamu yàlla yi wala ñu fee dem fi des ah des na de bu ma teeloon ñëw defal ko sama bopp li ñu ma maam yi ñëpp ma def ko ci koy dem di nga sax xayu ñi fër parce que fa man temps aman hayya waaw waaw na ni faroon fekk fee yu tàng yeeg yu neex yëpp yi circulé waaw bis la te fenn ku dagan la ñëw ki ñu sobe ci àdduna moom la sallallahu alayhi wa waaw waaw فمن تعامل هيا لمن لو خبرا مجرم فمن تعامل هيا لمن لو خبرا مجرم فبا على جاهل خيرا بيوم على زي الغرا مولد سيد تبارك الفصيرا نموا يوم فمن تعامل هيا لمن لو خطر مبجلا فابا ما لا ينصرف ما لا ينصرف ci jàng ci ñuy jàng naxwu mm, yàlla yàlla may la wiiw waaw oustaz xalil euh, moom xalil ñang sama xalil la te Tuubaa la jóge moom it ndeysaan mm, lu ñu def ànd ko waaye kenn mësul gis ku mel ne xalil dafa texet trop waaw nafale lay dund est-ce que dama yàlla sax dama ko may saako ceeb mu woo ma ne ma sëñ bi ceeb bi daal dafa xawa a sant bu soo jigéen ñi mënuñ ko togg daa rek maanaam kon delloo si li ma ko ma jox la njëg defan day day euh, day caaxaan muy ne ma saako ceeb kii moom rek moo ko ñamee du bàyyi ba déwén sax <laughs> waaye sama xarit la moo tax yàlla yàlla fay ko yiw euh, di nuyu di nuyu di nuyu moom jig na kër gi yàlla kër gi jig la Oustaz Saxir dafa dem ndeysaan yàlla yàlla may la yiw jige di wóonu yàlla bu ñu jik li ma seex si mataar sun jig jignu jigéen di wóonu yàlla nga yàlla nga yokk nu yokk ak sa sa sa sa borom Cap-Vert mu tuddati yaay Sam maa ngi koy nuyu di ko sant ak njaboot ga yaan yàlla fay li yiw yokk xam-xam yokk ba xam dëkkandoo nga uh, te al aqraba awla xam naa oustaz si bu ñu amee problème rek mu ngoog moom fii la dëkk sama dëkkandoo la ndeysaan yaay sil xurba yàlla li mu ko tudd ak koo ñor yaay ah macha allah xam na li muy wax bu baax macha allah yan yàlla fay li yiw ak sa njaboot ak sa ñi ngay àndal sëriñ daara yi ñoo ñëw am na ñu leen ñëw ñëwuñu ñu ngi leen di bàyyi xel ngant yi daa bëri dongoy kër gi nag moom ah maa ngi a bokk tool bi ngeen dem soññ ma leen soññ daa mun taxaa mi xam ne pas kese la <laughs> naama ah, ngeen di nu di nu leen di wétli ñu yow ñun dañ laa mën a wétli waaye yéen moom ñi àndoon ak bàyyi aboo tuuti mag ngeen ngeen di gunge gone yi teg leen ci yoon parce que loolu rek mooy seen bénéfice bu ngeen mën a tut ñu mën leen bu yàq buñ leen gisul ne ca yoon bu baaxoo ngeen di am tuyaaba kon yàlla yàlla taxaw leen muy màggi kër gi ñu ci des mooy xale yi tuut tànk yi sama yaakaar jépp ci laa ko teg lu yàllay joxe rek am na fii loolu ne loolu ne sëñ Tuubaa dafa am lépp bàyyi laaj baar ne ko yàlla dina ko loo bëgg mu ne ko lépp mu ne ko jox naa lépp <laughs> Cheikh Modou Lamine Bara bi mujjee bi gis sëñ binde ko leetar sant mujj sëñ bi nag Mamadou Lamine loo bëgg ma ne ko ngay jantamay weer rek ah bàyyi boo nag mal naa place wax ci moom même ku yàlla mayoon baati nag xaas la wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu seen liggéey doxa guddi te yéen rek la couvrir te li ma jaaxal man maa ngi koy wax fii tey ñi déggandoo ko damay gis kër gi duñ sagal seen nit. bàyyi bi fi def émission ma seetaan ba jeex kenn du alo allo kenn mësuma cee woo. mais lu tax Pape Maguette mais ca Walfadjri ndeysaan lu ne kër bàyyi boo kër bàyyi boo te kenn mësuñu ko ne allo te pourtant kër dañuy solidarité te moo ne fii de borom lim bu bu mayewutoon ay eh, eh, garab sel la fi ba. waaye da doon maye rek mil tax du ngeen mayante nay ba nay ci dara ji allo bàyyi bi rek kontaan nañ ci émission bi nga def sëñ Abou Madiane rek loolu rek nay ngeen ko seen bopp kër gi.

du kenn du ko woo dee leen jàppalante nag te sagal nit te fam ne nag nit te te te te te sëñ Mountakha barki réew nu mu def jóge njaaram jaar kër sëñ Moustapha Gueye ne ko dama laa mu neex lool bàyyi mu daan wax ne man ku ma seet nit ki da ngay jékki-jékki mu gaare Cheikh Thion doo ci firnde mais nit tey sagal nitam sagalante ci la dimbalante sagalante dimbalante ku téléphone bi nga boo bàyyee maa ngi kontaan naaj big big li nga ah, da koy encourage mu sago ko ci nawleem wa taawanu alal birri wa taqwa waay noonu la noon la mbooloo mi tudd dee leen ma jàppaleen ni ngeen mën a jàppale ñi ngeen mën a jàppale ngeen indi leen ma jàppale leen ndax man lu ku ma bëgg a jàppale laa jàppale ndax sëñ Tuubaa moo may jàppale wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ bi de ñun ñi dañoo bi nee na sëñ bi moom fii moom ku mu neex ku mu ku ñëw sa aajo faju ku ñëw ku mu neex sa aajo faju ku mu naqar sa aajo faju ku waaw ma ni ngeen baal ñu tuuti sëriñ bi dafa min allaziina yattabi'uuna sunnata abdika wa nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aghnini bi fadlika amman siwaaka astaghfirullah allazi laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum wa atuubu ilayka yaa rabbi waghfir li zunubi yaa hamiidu yaa majiidu yaa mubdi'u yaa mughiithu yaa rahiifu yaa rahiimu bu dee li may wax amul yàlla ba ma gisante ak sëñ Tuubaa fii laa toog di ko jàng may wax sama xel hmm. ma daan ne yàlla maa ngi lay ñaan si diggante wàllu bii ma jàkkaar lool moom am na ko doon waaraat fii mu daal di alma micro bi kooku ñëw mu ne ko wàllu du dara. ndeysaan barke alquraanu karim billaahi waaw dama la waaw kay jërëjëf mani mani waaw ngeen baal ñu tuuti dégg nga kii day fay am fan fan ay wàlliyu ah, waaw xaa baal ma rek xam nga sëñ bi dafa am lu mu wax léegi ci man ànd gi ma ànd sëriñ bi daf ma jig bi may ànd moom dañ maa xeeboon lool waaye léegi lu di am rek ci barkeb sëriñ bi am naa ko dem naa màkka maa ngi ñeenti soxna yu jongo ma nag bi xam na ci am naa kër fu ma neex dem lu ma wax ñu ni dëgg la lu ma wax ñu ni safara ñu ne xaritu bi Abdou Aziz Mbacké la moo ma may lu nekk barke borom Touba day taal otoom di ñëw sama kër ànd ak soxnaam di fi yebal ay taaluyam kon lu ma bëgg nag yow laa koy wax baal ma oustaz xalit sukkuran leen sama xarit nga waaye li may wax rek mhm. dafa neex waaw wala day wax ne li duuf lépp xajul ci cin li aha kay mhm. da cee xajaloo wut mhm. maa ngi fat sama xarit bu mag mi ngi ne taxaw sàndarma ja gàmmu gune tëngi dëkk liggéey Touba ba retraité Serigne fa fa liggéey ba defar ba dafay wëllëre di sama xarit ban bëgg na gàmmu gune day bàyyi yitteem jóge tëngéej ñëw fii dama gàmmal bu baax sa jaax maa ngi lay sant bu baax di la jaale sa mbokk moom sama jooj waat liggéey di la dénk mbooloo mi ngeen xàmmee ko baax ku ko rom nanga ma ko teralal sama xarit trop circulation bi lañ xamante mu liggéey Touba ba retraité waaye am na fa ndax yiwam ak baaxam ak bëgg sëñ bi ja maa ngi lay nuyu bu baax nga baal ma ko ñi ci rek ñëpp nag ah asalaamaaleykum waaw damaa mën woon eh, rek waaw waaw sama elew malaaka yi waaw leen góor ko rek ay ay nag yooyu waxuma ko li sëñ bi fàggu moo bari dama ne sëñ bi bàyyi aboo dafa waxoon ne ku sa aajo nar faju doo dugg fii dugg fii yëmbal ñëw am ñu fi bëgg ñëw mais xamna naa mënu ñoo ñëw kan ba sama mère xam nee na dem Touba yëmbal yombut am borom Touba yëmbal yombut ndax borom Touba yëmbal yombut aayuma ci yoy sax yooyu aayuma ci parce que fi la taxaw julli ñaar rakay it ñu ko fekkon deewul ñaar rakay it la julli fi julli ben rakk selmal ma bëggale ko soppay ñoom sëñ Malick ñoom it maa ngi koy fàtte Isnul Abrar waa waa kër gi. mooy daal ñoom def nañ teraanga yu bari togg nañ yu bari nag. sëñ Modou Xaban mi mën a seere sëñ bi julli na fii julli it ñaar rak mu julli benn rak sëlmal ñëpp ne xeram mu ne ah jaaxale ngeen di damaa kàbbar suñu boroon ne man nangu naam julli gi nangul ñëpp ñu ne ñu ne ah mu ne leen kaay da ne a mën a wedd te am am nañu ko seen xol yi jiixe jaax yi waaye li ciy ne mooy yéen ñiy fekk jullit kenn bi faatu ba déwén bind leen seen bopp yéen ñëpp ku faatu rek seen baari jullit bis boobu sax la bàyyi jiite jël maam sëñ mën jóob ndaag mu koy jiiteel parce que nit yàlla dinaa ko foo xam ni leer yàlla bi jaxasoo saxe si xamoo ma di yaana si xamoo am dara jaam ba tooñ ko yàqu la boo fa jógee di nga wekk lu ñas keneen Tuuba Seyduna Abu Madiana boo koy teral tedd am xéewal gu ñëpp janool ni lii aboo la ko may ci may Sëñ demal na murit ak tiijaan laayeen demal na ko ne ba waa Ndakaaru ni kii doonu Sëñ narab pëlëg walafak manja maa njaago ñëpp bindu Muhammad la sopan ngir Serigne Touba. Cheikh Abo Madiyana gaynde Maam ana ku sopp Cheikh Abo gaynde Cheikh Mamadou Lamine Baara. Serigne Abo mandi Serigne Abdoul Aziz yow yaa jannu Cheikh Abo yow donu cheikh Abo mi donu serigne bara moomin mu donu Bamba domi mam jara ya donu cheikh Abo mi donu serigne bara ya ya donu cheikh Abo ya ya donu cheikh Abo Madiana ku sopp serigne Abo Madiana serigne Abdoul Aziz Abo Baay Faal bi yo ya donu cheikh Abo mi donu serigne bara moomin mu donu Bamba domi mam jara ay Mbàkke li lay waral sa yeen bi mos ku lay lëjal gi naa ni lee mu soonu yow gisoob dërëm ba tax nga fàtte yàlla am nga cofeel ci Bamba Mbakke bala يا تارو يا تبتا مصولو نون جوغ نو اي جوني جوني سمبر دو سولو على عندي عزيز ابو سخابو مكي ستو بارا مكي اي غرمي باي وخلين على عندي عزيز ابو يا اي باي فالو سرين بارا مكي جوب سرين بارا على عندي عزيز ابو xidmatul xadim baay wax leen Cheikh Abo Madiyana moom ku man turam doolak wax ma Bamba yaa nuy moom bu nuy dund ak bu nuy dee yëpp yaa nuy moom ma Bamba yaa nuy moom bu nuy dund ak bu nuy dee yëpp yaa nuy moom Cheikh Assis yaa nuy moom su nuy dund ak bu nuy dee yëpp yaa nuy moom Cheikh Assis yaa nuy moom su nuy dund ak bu nuy dee yëpp yaa nuy moom Cheikh Assis yaa nuy moom dam yaa bëri njëriñ. Dambamba yaa bëri njëriñ. Dambamba yaa bëri njëriñ. Dambamba yaa bëri njëriñ. loxo ca kaw daam yaa bëri njëriñ. Dambamba yaa bëri njëriñ. Dambamba yaa bëri njëriñ. Dambamba yaa bëri njëriñ. Daam. yaa bari njëriñ Dame Bamba yaa bari njëriñ ku wax Serigne Abdou Aziz Abo yal na fi yàgg téwér yal na nga fi yàgg téwér